système sanitaire bu paralysé tawat bagaimana tawat ñi tawat ragal dem kër docteur ndax amatul assurance bërëbu fajukaay yu amul jumtukaay ñi lay saytu di lambatu te ñëpp xam nañ ni fourchette du tank ñeex ñang ak ñangalé suuxe réew mu ndaw amatul yaakar ba tax ñëpp di jël galgi boroom lijaasa yi ci marché yi jeune diplômé di chômé ku ci pare jàng yaa ngi jaay te du teeñu lay daq di nangu sa njaay ndongo daara baa ngi jooy ngir tumuranke télévision yi di parparloo ñoom joxeetuñu xibaar yu wér tey wër-wërloo ay journaliste yu foo te du àtte mu ko dëgg ñenn ci artist yi ni pat su réew mi tàkk ñu ni tekk ngir sàmm seeni baat ak seeni pàcc su lépp ne tekk ñu génn ngir bëgg bokk justice bu corrompu yoon bu dëng ci ñu waroon doxal yoon ba fuye say droit yóbbu la nungu siin ci lu dul yoon ndaw yu fippu ci li leen soxal di xeex seeni àq ki yelleef ba mujjee kaso kaso yi nga sol ba mu fess te ñu ñak def gën fa fess mu melni ni amuñu pexé tëj rek ka fi sës dundin bi jafé fa feebar yi bari fa détenu yi du yuxu kuy walu <sighs> Assalamu maison des esclaves. royaume du Mburok Sow empire de Thiog république des Dunguru l'empire lesbienne l'empire bisexuel porte aller sans retour maa ngi leen di nuyu waa Sénégal l'affaire Ousmane Sonko sketch la woon wala lamb la woon wala màggal la woon wala gàmmu la woon wala benn fet la woon rek ngelaw lu ñëw war a romb jàll damay laaj Ousmane ndaw la lu jàng ci réew mi ndaw lu màgg ci réew mi mësta bëgg génn dem yàlla setal xelam réew mi soxla ko mu teew ci palaasu réew mi wër di suuxat réew mi ba xëy gis ne kat ñi yor réew mi fexewuñu doxal réew mi waaye dañuy doxal seen bopp Ousmane ne man fas yéenaa dox fas yéene naa doxal réew mi ndax waa réew mi mën a dox <coughs> Ousmane jóg ñu commencé jiñ Ousmane Ousmane ne leen fukki at ak juróom toog naa ko ci lemp entreprise o entreprise introsé naa la dugg naa contrôler la li jox ñëpp ay millions xool leen fépp fu ma lekke fukk tëj leen ma avis kenn ci ñoom mënul yëkkati loxoom wax loolu Ousmane dëgmal ndaw yi ne ko yow da lañ soxla mag ñi ne bëgguñu ndaw yi jàpp te wa Ousmane ngank fi mu ngank wëyu yi taxaw fasiyene ko lek ndaw yi taxaw bañ waaw waaw ndaw yi Ousmane <coughs> dugg ci dara don goné ngeen diko gungé ba mu mën tok toog ngeen di ko ba mu mën ram ngeen ba mu dox ngeen diko gungé ba Ousmane daw ngeen di ko gunge ba war ko gunge pale yen ndaw yi tefes gi lay waxal tali yi football lay waxal yaay yi nga xam ne nañu comprendre nañ bàyyi nee nañu comprendre nañ ndax seen jëriñ ci seeni dom la nek dom yi ñoo bëgg Ousmane ta futur bi moy gone yi waaw yeen dama len di laaj ki len ne bu ngeen ma falé seeni contrat wat ñu xol ci jikko ja mu ne ci mom bandi yi xam lolu ne ko dul sàcc do fi tok duñ ca yem waye ko dul sàcc dañ koy tëj waye ndawi dama len di laaj yaay dama len di laaj bayyi dama len di laaj ndax da ngeen beggul sen njabot gi tekki njabot gi ndax yeen da ngeen beggu ta tekki ba ay bandi teye Ousmane Jurum fukki fan tej ko buntu kërëm pare ci juróom fukki fan ñu ne déet essayé nañ sotti na nañ ko jël tej ko ndungu siin ndaw yi ñu ëpp ci yéen ka ngeen yaakaar mu di kan bas abdou xaadar waa kër Macky Sall jubal ca ñoom ba ñu yeggee li leen bas wax ci néegu biir li ngelaw luy jallal la bu magal gi ñewé lepp tegu ci suuf kon ndaw yi lolu da ngeen ko bëggee wéccé né dañ leen yew da ngeen ko bëggee wéccé né dañ leen yew li leen di yew moy seen togaay bayyi li jall bu jallé bu leen yabo kenn ku nekk wutil boom yew sa bop ndax ñu diko gis mu gëna yomb ci wulay ya nak may dégg am Ousmane tay ci ñaata fan ay kilifa diine ne ci réew mi ne ñoom ñoo toog ci diine gone gi woor julli ji àjjuma di ñibbi si këram ñu yenu ko yóbbu booboog léegi mu ne du ndogu ay nit toogal fi diine signé woon góor jigéen toog ci réew mi ne fu ñuy toroxale jullit ñoom araamal nañ cee wax te ne ay kilifa diine lañ diine ji nañ ci wax lan moo dàkkantalu ci ginnaaw diine ji ji ñu kiliféef bi ñu doon kilifteef bi nañ leen ko wax ah. nañ leen ko wax ah. bu fekkee ci diine lañ taxaw gor lañ fi tere julli ji juma gor lañ fi tëj këram gor a dem julli ji juma woor ñu jàpp ko te ko ndogu ba tey jii may wax ak yéen ma nga ca kaso ba tëdd jog naam jogul kenn xamul ñun ñëpp mënuñoo xam waaye bandi yi ñu ngi dox di sillonné réew tay dem ci sen kilifa diine yi bas nak neena len bu magal ñewé lepp ngelaw la rek day jaar jall ma ti gu ne gi mu waxat li xew ci rew mi ci sen mag yu baahi ak sen seut yi fi ñu tollok ñom ñuy dé ta duñ ci wax ñu xif ta duñ ci wax nit di ñu toroxal ta duñ ci wax ñu ngi yuuxu faalewuñ ñu ta ñu ngay lijeenti wa bitim rew ngone gi waxat ko ñu dégg pays de la teranga ou pays de la terreur Ndir yu bew tay bay bayal ayib ci askan danu la le ken mayu la ay milliards yu nax système sanitaire bu paralysé tawat ba tawat ñi ragal dem kër docteur ndax assurance Borobu fajukaay yu amul jumtukaay ñi lay saytu di lambatu te ñépp xam nañ ni fourchette du tànq ñeex ñàng ak ñàngale suuxe réew mu ndaw amatul yaakaar ba tax ñépp di jël gaal gi boroom lijaasa yi ci marché yi jeune diplômé di chômé ku ci pare jàng yaa jaay te du lay di nangu sa ndongo daara baa ngi jooy ngir tumuranke télévision yi di parparloo ñoom joxeetuñu xibaar yu wér tey wër-wërloo ay journaliste yu foo te duñ àtte mu dëgg ñenn ci artistes yi ni pat su réew mi tàkk ñu ni tekk ngir sàmm seeni baat ak seeni pàcc su lépp ne tekk ñu génn ngir bëgg bokk justice bu corrompu yoon bu dëng si ñu waroon doxal yoon ba fuye say droit yóbbu nungu siin si lu dul yoon ndaw yu fippu si li leen soxal di xeex seeni àq ak yelleef ba mujjee kaso kaso yi nga sol ba mu fees te ñu ñàkk def gën fa fés mu mel ni amuñu pexe tëj rekk a fi sës dundin bi jafe fa feebar yi bari fa détenu yi du yuuxu kuy wàllu. waaw kay kon lii yëpp mi ngi ci réew mi lii yëpp ngi ci réew mi léegi nag ma andil leen seeni kilifay réew ci benn boor bi bala ma leen di indil seen beneen kilifa réew seen yeneen kilifa réew mi ci beneen boor bi ñi ngeen jàppe kilifa wax nag laa fiy bañ. Wah, lafi bande wah nyaram, yan amulen jom ndax ab serign xamul sa nday xamul sa bay buñ ko fi tuddé nga gëssam ben baram bi mom nga téye bind temps bi nga ci def temps bi may def tay sa nday ci xànduk lem du ko mati temps bu tuti lay def ci temps bi nga def pour mer ma tay sa ndey ci xànduk lem nga jëlati temps dem wutiwaat beneen foo profil ñëwaat waxaat la nga war ta wax ma tayaat sa ndey ci xànduk lem booba sëriñ baa ngi boof ci ay xuuram toog di lijjanti pooju jéegam na leer dama bëgg ñu teel leer dès le départ mu teel a leer ku ne xam fi ngay taxawe jàmm ne ñooy falaa yam nag aj xale yi tal xam nga nan lañuy tuddé cocktail molotov café touba café touba lañuy tuddé cocktail molotov Manam bu ñuy dajalé cocktail molotov wala ñu bëgg ko jëfëndiko dañ nan demal indi café touba ben ngi ni ki moy antoine mën Antoine mi <coughs> maire wara sar daf ko fi taajoon bir assemblée ne ko Antoine ku bax nga won ba nga adhéré kilib wéyu yi ba tay xàmmeetuma la sa way bi sa ndaway bi mën nga tasum rew Antoine nak ci tank tasum rew la ne nee na tas na parti politique day tasum réew allo waaw waaw waaw xaaral tuuti dama nekk dama nekk live nii ok Antoine mi nena ministre de l'intérieur la Antoine rew mi lañ ko jox mu ben branche mu war ko muy walu sécurité Antoine amul dara lu mu wara a ci rew mi luddul ay cocktail monotof mais ba tay waxu lan mo jur cocktail monotof parce que Antoine yow ak kilafal la da ngeen tok ci kaw togn di ñi fayu murit yi nag laa waxal Baye Fall yi y yéen ñëpp laa waxal Baye Fall yi gis ngeen Antoine nii mooy appliquer li nga xam ne waa kër Dajal moom lañu ñu taxawal Cheikh Tidiane Gadio taxaw na assemblée ne dafa am ay terroristes yu dugg ci réew mi fas yéene exploser misolé Serigne Touba ak bu wax leen bu deug rek ne len ma du deug ak bu kan wax len ko Sidi khadji malik gaajo moko wax de gaajo moko wax du man Antoine nak genn na ay bali fital a ngi ci réew mi Antoine gul ba tay ba wax ñu bali fital yi fu mu joge ak kan moy tire bali ak kan mo ray xalé yi Antoine mën na lagar-lagari ci bir dekk bi taxaw ci ab oto ne oto bi bomb moo ko explosé ay jaadis tey génnaat na nag nee na leen xale yi bu ñuy utiliser cocktail Molotov dañu naan ana café Touba doomaram ji ba nga mënee lijjanti yow yoroo am réew yéen da ngeen yéen a ngi ci caniveau yi vous êtes très bas Baay Faal nag laa waxal xam nga ñoom ñu ngi ratissé si boor bële muntaxaa jox na len ndogal protéger ndogal couvert buñu couverture ndogal buñu couverture moy ye yaay da ngeen di téré ku sol li ak ku def greffage ak ku tak lam atté ba ngi ñew atté ba ngi ñew yéen ngi dugg ci biir réew mi nak di sionné mun nee na tere na voté biir Touba ni Macky buggewul vote parce que bañ ko laajee suñuy carte électeur dafa bañ dafa bañ six mois la mu def ko un mois ubbil nit ñi ñu ñëpp ñi war a bokk-bokk mu bañ jàpp kiñ bëgg tëj kiñ bëgg ëppale biir Touba mun ne du fi daw léegi nag yónni na murit yi taalibi eh, Baay Faal yi yéen Baay xam nga posé naa leen question nangu leen maa tontu. Je vais poser question dama len ne bi ci nax yi ñu nax fi si fiñ toll dañ ñu ne Cheikh Ibra dafa fannaawu won mo feñal Serigne Touba ne ci archive ci archive Cheikh Ibra intellectuel la ci archive Cheikh Ibra mo poser mo yobbu Cheikh Anta mu dugg école parce que way Je bu poser Cheikh Anta Je jam ko ci tank ba sol ndox cheikh anta di sox ñu yëkëti ko yobbu ko ci cheikh ibra mu faj ko xalé bi neexel mu duggal ko école cheikh ibra momu ci archive waxuma ko nak waxuma ko ne archive yay wax mo doon dox digënté wala yam lolu tubaab yi mom lañuy wax renseignement généraux RG léegi dama xamul ndax col gi ngeen di col après ba ñu laxasee li ñuy laxas après Serigne Touba parce que lii fi xew Serigne Touba newu fi parce que gis naa benn lettre benn lettre dinaa leen ko postel dinaa post lettre bi mu am numéro am numéro archive am fu mu jóge kilifa yi ngeen yor ñu yor ay millions te xam fi xat archive yi ne bu ñëwee ba photo bi génnee ba ngeen ne kii du Serigne Touba. na ngeen fexé ba kilifa yoy gennat leral lettre bobu ndax amna wala amut lettre bi nak duma ma la ci ne duma ko wax de da ngeen koy lire parce que fi def nañ ko lutax nga woné ko mo fi am ba tay maa ngi ci Antoine na leer na leer de wax lay bañ nag waxon na len lima len wax buma bare indi boy bas mu wax limuy wax comme mom ci ay dil lay dox ci ay dil lay dox di nga bërëngu de waaye di nga tak ku bërëngu ta doo tak amul fen maa ngi ñëw voilà léegi dama xamul question la ba tey nag bàyyi faal yi laay waxal parce que yéen a bëgg a dugg ci li ngeen di def yéen ci bëgg ne comme nag mun taxaa toog na ne ku rey nit safara nga jëm yéen ngeen ne di ngeen rey barrière bi leen di teree dugg safara gisuma ko moom moo leen ko wax après moom waxoon nañ ko bind nañ ko ñëpp ko xam ku rey nit safara nga jëm ne ngeen du ngeen ko ba da ngeen bari doole léegi après laxas bi lan moo tax tubaab yi tubaab yi ñoom ñi jiite seen intellectuel yi ñuul yi lan moo tax bu ñu jëlee ab RG rek sorol ko yére Baye Fall damay laaj de ku ma duulal nag laay bañ ku ma yóbbu kër yaama di tax rek laay bañ ku may lonk lonkaaleel ay wax ak foto bu bàyyi leen di lonk photo day leen lonk vidéo parce que paa yi dañ leen di vaar de leen vaar gone yi ñu tojagul ci nen man nag du ma gone maa ngi ci diggante gone ak mag na leer de yéeg naa wàcc dootuma gone ku yéeg wàcc dootoo gone gànna mesere moo ko wax na leer coow laay bañ damay laaj rek ndax intellectuel yi Administratif, bi lan motax buñu bu dan wut RG dañ koy solal yere Baay ndax lolu am jangat la woon caka ngeen top ba ngeen ñew ba ko dëggal valider ko ba rew mi buñ fi daw jàmm bëgg nit ñi dund yeen ngeen ne du ngeen dox ci lolu ci royaume ngeen di dox moy da ngeen di toroxal dañ leen di sant dem leen toroxal seeni morom yi nga xamne bu fekkone ne yéen bëgg ngeen taxaw ci li cheikh Ibra taxaw ci ni ngeen ko waxe mooy defar ay jaam ni sëñ Touba doon defaree ay jaam di ngeen taxaw fexe jaam yi am jàmm ku leen nar a xañ jàmm ngeen taxaw ci ñi leen di xañ jàmm mais du yéenay xañ a jàmm bay nangu ay kap di dagg caaya laa bëgg sol seen caay yi ni mu nekkee valeur nga xam ne fii ci Europe gii ma ne damay yor oto bu tooy jël sama caaya taxi si ni samay daal dugal ci oto bi dox tànku ne tubaab. lu mu civiliser civiliser dina taxaw gestu ma duma ko gestu momay gestu su gestu bi xawé yessa nga gis mu ñew laaj ma sali dafa dafa rafet foko jëndé ak noma def nan la ci mëna amé yeen ngeen ne seen yu tilini yeen dal yëfi dof rek ngeen bëgg def ngeen nangu ñu leen koy def lo damay laaj nak damay laaj ndax yeen da ngeen bëgg dëggal ne cheikh ibra da doon toroxal ay jam wala da ngeen di dox ci cheikh ibra bi doon defar ay jam en tout cas intellectuel lool ci ñi njëkk am auto biir Sénégal si la bokk kenn ëpp ko fi woon suuf te ku civilisé la woon nag ku jekkoon taxawaay civilisé set wecc du woon coma de wallahi azim li ngeen di wone nag ku leen topp la may gis la ngeen di jàngale du neex a roy bu ngeen moytuwul Antoine John mii def na première test moy lan auto bu tahu. mu ñew taxaw la Cheikh Tidiane Gadio waxon magal gaa ngi ñëw yéen ngi ci magal gi na ngeen ma moytul Antoine dion surveiller len ko de près bu ngeen moytul sen kaw lay daan nokku len bomb pour jaxase len ak réew mi te su boba gañu gañu ci yenn Antoine dion lay wax nag source sir la len di wax nag préparer len ngeen xaar deuxième chose moy nangu kab koy filmer de yéen def filmer wane kenn topp leen ngeen koy def nangu lam yeeg nangu përëm yeeg parce que ñun ñi ngeen di nangu amu ci kenn ku ci am njëgu or ay përëm lañu yor xaaral ma ñagu xaaral ma ñagu may leen ma ma ñagu pastef di mom ngeen di dox ci souf mom ngeen di dox ci souf ki tak jaaro wala brasser bracelet pastef satchul njaalawul solo lu gàtt agressewul futbalul takkul gerefaas tuuxul cigarette xéñul lamba xéñul cigarette ngeen nangu ne waru ko tak magal nga ñew magal mi ngi ñew na ngeen lu bax jabari kilifa yi côté intellectuel ak côté spirituel bu ñuul bék bu weex bi bu ñu gis kenn mu tak or na ngeen lu de yeen la de bu leen nango don ay naafeq de liggéey day mat bay faal ca war wa bu waxé day dag bu mattee day dag fexé leen ba bu kenn tak gerefaas magal gi nak ñu ngi fi vidéo yi mom ñun demu ñu filmé lepp ay ñew dal ñu lu ñew dinañ leen ko joxat yéen a fi nekk di sillonné di rey di daggaay kap di xolle ay der di nangu gerefaas pour yéen yéen a ngi liggéey bu leen liggéey ba bés ba nag ngeen bàyyi malit mi tuuru bu ngeen balee ba pare malit mi fexe leen ba ne lépp àndandoo dem malit te bu malit duggaat fexe leen nag waykat yaa ngi ñëw sàcc yaa ngi ñëw trafiquant de drogue yaa ngi ñëw dealer yaa ngi ñëw kattantekat yaa ngi ñëw na ngeen xippi seen i bët te bu kenn mooy biir Touba te bu fa kenn takk gerefaas bu fa kenn takk or ku nangu përëm mën a nangu or walla ngeen nañu rek or moo bokk përëm bokkul du dëgg waaw kay kooku ci yenn laa njëkki ku mer rek ma wàcce sa ndey lu ma naqari la neex leen ngeen nekk ci li ma naqari ma nekk ci li leen naqari ku mer mu wàcce la point barre na leer je suis un Il ne faut pas regarder un fou. Attends, je te sors. Comme ça, je te débarrasse. Je te débarrasse. ku du xool ku dof ku wér da ngay te ñu voilà <coughs> Maintenant, deuxième vidéo parce que Réumi, d'une duñ fi pas gor ay nit talk, fi bëgg a fee doon ay duñ duñ fi quoi? gor ay nit na ci biti bëgg na ñoom ay gor lañ yeen ñep ay jam ngeen te jam yep lañuy top ben par ben ñun ñep ay jam lañ gor amatul ci rew kon amatul ku ñuy beral ruq amul parce que ñep ay jam lañ ku julli ji wor mom lañ japp tecc ci kasso bi ngeen tok setan ne du ngeen ci jog comme jogu len ci nak gor amatul ci rew amul kuy am privilège ñëpp lañuy tuddu tudd seen ñëpp yëngal seen caaya ba jam jàmm di am ci réew mi nak ñen nang yéen fi ne di wota da ngeen gëm yalla ñu ray fi xalé yi yéen ñuy dund gënu leen xalé yi ñi leen jur gënuñu xale yi ñi ngi leen jiite gënuñu xale yi ñom ñepp ni ñu suulé xalé yi lañ di suulé te ñom ñepp ay wuy kun fayakoon borom mbaar mi waaw ku fi dess na ma ne ma fi dess bo paré wax ma an sa maam ku fi dess na ma wax ñaat at nga fi dess ak yakana fi dess te boo paree nag ma woon sa maam ndax des na fi bu fi maam ji desee nga woon ma maamaat kon kenn du fi des xeex rek mbaa ñu wuññi lépp nañ dem deuxième vidéo deuxième vidéo aca dafa ne mi ngi bokk ci avocat Ousmane Sonko yi waaye moom su nekk bi mu nekkee fële ci Europe day day day def li ñuy wax ay appel à l'insurrection day wax sénégalais yi jóg leen euh, daane leen nguur gi lakk leen euh, euh, yàq leen euh, toj leen waaw parce que moom sax bind na benn lii boo xam loolu la ciy wax nu ñuy yàqe nu ñuy tojee nu ñuy toje commissariat nu ñuy lakkee ay dëkk waaw loolu kooku nag bi mu defee loolu yépp jëmale ko ci suñu réew suñu réew dafa defoon nag li ñuy wax mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international mooy dañoo def benn këyit boo xamante ni dañ naan réew yi mu mën a jaar yépp wala Interpol foo leen ko mën a jàppe jàpp leen ko ngeen jébal ko Sénégal bi mandat d'arrêt boobu amee nag moom mu tànnal ci boppam ñëw biir Sénégal làqatu nag dafa làqatu làqatu masqué wu ñëw Sénégal gisuñu ko sax bi muy dugg si ndax dafa masqué wu jaar fu compliqué mais bi mu ñëwee fii ba ñu yëg ko dañ ko commencé di seet ñu seet ko mu dem euh, jël gaal euh, dem ci géej gi dem ba Mauritanie foofu lañ ko jàppee fa dem ba Rosso Rosso ci Rosso lañ ko jàppee euh, indiwaat ko fii remettre ko police Sénégal bi ñu ko remettre nag comme mandat d'arrêt la mandat d'arrêt suñu ko defee ci yow mooy suñu la jàppee rek kaso nga jëm amul sax jaar ci procureur yooyu déedéet dañ ko jàpp rek yóbbu ko kaso bi ñu ko yóbbu kaso nag comme mandat d'arrêt la benn juge d'instruction moo ko émettre mooy juge d'instruction deuxième cabinet moo ko instru moo ko euh, lancé woon ñu jébbal ko juge d'instruction bi bi mu ñëwee rek juge d'instruction bi xool ko mandat bi kon jeex na dañ doon wër pour jàpp ko jàpp nañ ko ñëw na taxaw ñu ne ko léegi nag juge bi ne ko léegi nag yow dañ lay ndax ak li li lay Sénégal nga def ko mu nekk ci mandat d'arrêt la koy juger lundi mardi mercredi flagrant am suñu euh, appel à l'insurrection acte de manœuvre à provoquer euh, à mettre en cause la sécurité publique euh, renversement de l'ordre constitutionnel na na ay wax yoon daf lay imposer souvent pour nga dem li ñuy wax information judiciaire mooy nga def l'enquête ba leeral loolu ba mu leer nañ donc loolu moo tax juge d'instruction bi ñu ko woowee bi ko bi ko ko jébalee indi ko présenté ko daf ko inculpé inculpé ko waaye inculpé ko ne ko yow li ñu lay toppee nii euh, l'enquête bi temps bi mu laaj mën ngaa yàgg fii trop trop trop le Sénégal la détention c'est l'exception la liberté c'est la règle waaye nag dañu lay teg contrôle judiciaire bu hmm. ñu defee contrôle judiciaire mooy inculpé nañ la da ngay da ngay da ngay nekk à la disposition de la justice sénégalaise mais nañ la liberté provisoire mais nañ la liberté provisoire kenn libéré wu la da nga dem ñibbi noonu déedéet ëllëg suñu la soxlaa da ngay ñëw su amee lu ñu soxla ci yow mun nañ def commission rogatoire mën nañ la condamné su la condamné da ngay ñëw purge peine bi wala comme am nañu accord de coopération judiciaire ak France nga condamné foofu suñu la condamné laa wax suñu la condamné mun la tam bañ nekk ay condamnation mais pour wax rek ne contrôle judiciaire la nekk am liberté provisoire lolu nak bima amé mom, ministre l'intérieur mom def arrêté. ba wa kat kanal Fall Kanaar fa ya ngok ke ma major fal Fall surtout fal Fall doomeram di japon suñu mam yop dem jaay ismaila major ngi ni Antoine na ba noppi duul naa duula duula duula dul ba Ismaïla Madior dégg naa tëngeej yëpp ay day la ismaila major <laughs> rew mi nak bu len yabo ngeen xamne xéssal nak mi ngi doga am njariñ xéssal xéssal ku yab man de ku yab commandé na len képp ko am akani, akani. way dimbali ma nga envoyé mako akani xéssal nak mi ngi doga a dagan réew mi xéssal mi ngi doga a dagan seen autorité ya ngi ku wax feñ Ismaïla major neena tek nit mandat d'arrêt mandat d'arrêt ku dekk France ngeen def ko mandat d'arrêt di ko wër kooku moo ñëw ba dugg Sénégal ngeen yor gendarmerie yor police jënd fi ay tonu lacrymogène belende yi ngeen jënd avion yi ngeen jënd li ngeen yor ci ay soldats yu nekk ci ay frontières mu ñëw ba dugg ci soldat ci biir Sénégal te yëgu leen ko xam ngeen ne liggéeyu leen bu fekkee ci say wax rek lañ topp liggéey defu leen ko ngay dàq nit naan ko maa ngi lay yóotu kooka ne la yóotu bi dafa sori ñëw ba ne jalax biir Sénégal dugg te gisu ko def conférence de presse gisu ko wala Ismaïla major islam Ismaïla major te ma la wutal ay paraprise camion pour sa miyop yi mën a baax comme amu ay miyop ñëw dugg ci biir réew ba génn réew dugg ko génn ko li ngeen yor ci arsenal buntu kër Ousmane Sonko fu Ousmane dem ngeen gis ko bu demee Casamance ngeen gis ko génn Casamance ngeen topp dugg ci àll bi nemmeeku tour ngeen topp Juan Branco dugg ci biir dëkk bi nga yor police yor gendarmerie yor armée yor ay RG yor ay satellite mën a capter mën a xam li nit ñiy wax di luñ bët nit ñi subaak ngoon guddeeg bëccëg kon yeen keñ dëkk bi ñoru leen ah Sénégal yeen a nga ci danger de <laughs> yeen a ngi ci danger nag waay waay waay waay waay ku mës a gis li dugg ba génn gisoo ko kon daal Mauritanie ñooy liggéey ci li nga wax mari Mauritanie ñooñu de ay ay ñoñu Rosso rek la yam Rosso Rosso duggul dugul capital dugul noir shot dugul noir Nouadhibou dugul fen Rosso wa Rosso gis kon kañ yéen Mauritanie ñoy liggey yeen liggeyu leen ismaila Major, ngeen na japp xam ngeen ne da ngeen di dul tubab kañ ngeen ragal doomu xaraam yi yeen na a yolom gañoo ci kanamu tubaab doomu mu wengal ngeen bi jigen sax waratul jahan ngeen tëdd ci kawam do merami yéen ay beccio ngeen war di sol yen fu ngeen di waxeti yéen do merami beccio ngeen war di sol di ñu sen di togun ndekki togu añ togu reer ñap ndayam dem taxawale ju ci sen sen sen sen seen seen ngunu yooyu sen bureau yi sen ngunu yi da ngeen wara ñu sen bu ngeen togalé sen jabar yi ba pare dem ci sen biro yi buñ leen soxlaa ngeen ñëw ñàpp seen day ak ñëw ak string jootu ñu kat seen day ci tuun wut kuuru roof bu ndaw ñuus ko seen biir tuun yi parce que yéen ñëpp ay góor jigéen ngeen jigéen ñi loolu lañ leen war a def loolu lañ leen war a def tubaab la Juan Branco joge Europe ñëw nga jàpp fi ñoom Cheikh Omar Diagne jàpp fi ay niti nit Ousmane Sonko nga def ko contrôle judiciaire nangu passeportam ñu sanday xam ne sa passeport passeport ma ko gën a baax ñàppoo ndeyam jéem dara sa passeport téye ko di jema andi ay affaire tit motax ngeen jëndal ko billet ñapp ndayam naan dañ ko ne dedet buñ la soxla ya ya yeen da ngeen ñemee joxoñ Juan Branco yeen xalé bi da leen doon pièce muusu Juan dafa porte plainte seen nday CPI di len nax comme ay dox ngeen jangou len jongou len turisé rek Ismaïla professeur ni professeur le professeur badja dong ngeen du ngeen cott ndayam xalé bi da len don piège dem na CPI ne len Sénégal respecté wuñ loi pour mu won waa CPI enquête bi il faut ñu tek ci dara un avocat international dina dem Sénégal ngeen xol di len nax dof dof dof dof sen kaw ba ngeen ne sen loxo ci mbax moy maanaam man ma yor sama fiir teg teguma ci sax lekk xana picc sax bokoy fiir di nga def dugub ci bir picc bokoy fiir di nga def dugub bey bokoy nax di nga def ci lekat gi dara waye yeen da ngeen katandayam dayam ba xamulen li ngeen wara def jangulen. Muslim sen seen daraja yep senegal la yem sen xali yi ci dara màccul ci dara li nak li ma ciy jàng mooy yi li ma len di wax yen yen ni bëgg dund li ma di wax moy gis nga actuellement ni c'est pas l'état qui dirige partisan apri ba ci nga doon partisan comme ni ngeen nekkee ay patriote ñoom kenn ku ci nekk om d'état la kenn ki ci nekk om d'état la ci waa APR ñoom dañuy def seen rôle bu ñu waree rey manifestant dañuy rey bu ñu waree lakk dañuy lakk bu ñu waree dénoncer dañuy dénoncer bu ñu waree doon ay ay renseignements généraux dañ koy nekk yéen lenn dong ngeen moome jox ma woyaa yooyu jox ma woyaa yooyu libéré jox ma woyaa yooyu libéré jox ma woyaa yooyu libéré jàpp nañ diw seen rôle dafa leen ko de parce que guerre bi actuellement nii du guerre politique guerre partisan ak partisan la APR la ak les patriotes sénégalais yi APR la ak sénégalais yi ñun ñooy ñun ñooy majorité mënuñu comprendre ñoom ñu ne ñoom ñoo nekk ci biir koñ yi jënd ay nit Bamba Fall jënd waa Medina Barthélémy Dias jënd waa Yoff jënd waa ci mu nekk jënd feneen ak feneen taxaw nag tas booy yi ci biir koñ bi booy yi nga xam ne ñoom seen yaay yi ci ay taabalu mango lañ doon tëdd dañoo kat seen yaay yi ci ay taabalu mango taabal maire yi maire yi taabal yi ñu doon jaayee géej ak yéet yëpp ci koñ yi seen doom yu jigéen yi ñoo fa daan tëdd ñoo jur xale yi tey di dugg ci koñ yi di dénoncer nit ñi di dénoncer di dénoncer gor yi yéen ngeen war a taxaw def seen bloc def seeni bloc géejawaay dem Castor xeex ji Castor jóge Castor ñëw géejawaay xeex si su ngeen pare ana waa Castor nan la ñuy xamee ne waa géejawaay fi nekkoon doon xeex ba di leen dénoncer mais du ngeen ko def du ngeen demee xel def leen bloc par bloc niñ leen di dénoncer ngeen fexe ma jox tur yi leen di dénoncer ma ñàpp seen ndey yi ci réseau yi ngeen wër leen. ben par ben police du len top gendarmerie du len top ken du leen garde amuñu njëgu garde corps dang may dénoncer tay suba ma xam yow la kan xaar la fo doxane ma kat sa nday yépp and 5 personnes ray sa nday liquidé amul dor ñuy feebar nan nangam ray sa nday lañuy def ray sa nday ba dénoncer dotul am ci koñ bi mais loolu lan ngeen ci xaar def len équipe par équipe 10 personnes ñoo dénoncer ngeen ne pat def enquête ñeneen dénoncer ngeen 5 bis jog jang ba xam ñan ñoo dénoncé ba xam né yéna dénoncé bu soobee yalla kérok dootu leen dénoncé ila yow mi diin parce que dinañ ray sa ndey c'est tout parce que fini tollu la c'est un problème d'avenir c'est un problème d'indépendance c'est un problème de souveraineté du ay tiaxan ngeen way ko boko laalé boko laalé buba buba xawra ma suyut beuté sa bajo ndey to commenté sa sa SWB bi boo demee sa data yaay comme B tuun gi comme B comme W S bi sa kooy baay moo dëggee noonu boo ko fa yóbboo rek am foo ko mën a teg sa data yaay mooy B bi sa tuunu yaay mooy W bi sa kooyu baay mooy es bi moo dëng comme sulu kanaara xanaa neex sa caaya bàyyi ñu continuer nañ continuer nañ leen continuer diaspora bi am ngeen yóbbante ku yeboo xeex xale yii taal xam nga nan la ñuy tuddee cocktail molotov café Touba café Touba la ñuy tuddee cocktail molotov maanaam bu ñuy dajale cocktail molotov wala ñu bëgg ko jëfandikoo dañ naan demal indi café Touba kooku mooy Antoine nañ len jàll ñu jàll li xew ci rew bu ngeen si fasiyene wul taxaw di ngeen xamne ne deug la ñàppay tojle le góor gi waxal nee na réew mi fi mu tollu kenn yàqu ko dul Macky Sall parce que rew bo amé jamm Macky Sall la bu ñaké jamm Macky Sall la la ñu jox suñu xaliss yow ko xamne bu xaliss général yu généraux yëpp dajalo won di dem ah président war a dañ leen di arrêté te ñi leen di arrêté seen sëriñ lañu arrêté pour président wara jamm nit da ngay gëm yàlla nga doylu Sénégalais yi wàccoo na la jaw di voté jotee nit ñi voté lan la lu voilà aja xaar leen ma taal TikTok parce que dama soxla doomu ci mburu mbaam yi voilà nañ continuer ñu jëli doomu gerte bi ci ci réew mi ci judd rek doon judd rek ñu dina raamal nga jaare fa dof ne nañ ko déglu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 yoonu yaakaar ëllëg la waaye du yoon àdduna liñ bëgg nag topp àdduna fa àdduna toll yoonu topp ko ca loolu yoon waru ko def li ñu war di def mooy na suñ kilifee daa doxe ba yoon wi agsi fii yoon wa yoon wa kenn waru ko wàcc mboolem na kilifee daa doxe it Cheikh Mouhamadou Mountakha mënta soppi loolu xam ngeen ne bu fekkoonte ne lépp lu Cheikh Mouhamadou Mountakha def wala mu wax ko ci réew yi danañ ko def kon dana mujj mel réew mi kenn newu fi pour moom te ñoom la ñuy def yàlla lañu koy seeral waaye séeréwuñ soxlawuñ nit ñi xam ko ndax la Sëriñ Tuubaa daa wax rek bu leen sonn ci bu leen ci sàkku gën d'accord nañ bas taxawal fii xam xam nga ni muusuñu ba pare yaakaar ne ci kaw ay dof lañ toog nee na sëñ bi li muy def soxlawul nit ñi di xam lañuy def sa suuf lañ koy def waaye yéen mois de mars bañ fi jekkalee mag sëñ bi lu mu doon wax ci kaw ba muy làq Macky sàll ci ginnaaw sëñ tuubaa soxla woon na koo wax ci kaw ba muy toj lu kër yi biir tuubaa soxla woon na koo wax ci kaw yow sa juróomi kër yi nga xam ne yaa ngi koy rëccu da nga soxla won wax ko ci kaw koko ko jox bo bok léegi juromi kër anañu da ko may bas rew ma ngi toj bas nit ñi xam nañ li nga bas waxal ci hectare biñ la jox fele nga jaay ko 8 milliards bas say buñ la poser question nga dugat sa bir xortu gerté bas say bu sa bes ñëwee nga bas joge nga fi ne boy yi dañoo xaru ji ñi dé ci bas joge nga fi dugg Maroc laaj boy ñaanal leen pour ñu mën a jéggi yaa leen xaruloo di leen jéggiloo ne encaissé seen xaalis kenn dee ci nga lànk ñu di la laaj internet intervention defoo ci ba tey intervention ñoo de seen seenub néew bas basa inga ngay def ci lii nga ne sëñ Touba newu ci woon sëñ Touba newu ci woon de yaa ngi fondu de billahi yaa ngi caaxaan réew maa ngi tas makkee ngi rey di tëj di toroxal japp ay gor bas abdou xadar nga taxaw ci ginnaw lakatu ci serigne touba do feñal sa bop mukk guddi ba guddi nga sol sa blouson dugg ci bir dëkk bi ñu ngi lay gis yu bari jaar na fi nak xam nañ ci enquête yi ci neew fo ci newut bay say ngay def bay li ngay def jaag bi amna de te kenn du la ci ñi lay sagal nii ñu def Ousmane sokko rek lañ lay def gungé la ba bir armélia ya oññeeku ko ne fanaanal ci armélia mu nak bëgg nañ tuba Touba passeport bi dee la kenn kian koo jël kenn ta koo ci ne demal nga wuti passeportu alaxira mu bañ Tiwaawoon Touba Njaasaan Kilikoro borom cer na ci kaw ak cer na ci suuf bëgg naa alaaji malik bëgg naa alaaji Malick passeport deewa ngi nii nga fekk alaaji malik maa bañ bëgg naa sëriñ Touba bëgg naa sëriñ Touba Bamba rek Bamba ji rek laa jeex Bamba ji rek lu Bamba leneen bokk passeport beewa ngi ni ma bañ ah wa li de mo am ci rew mi sa tiaxan yi nga ne da ngay politique magal gi li ngay wax waxoo ko ci souf ya tok ci souf na ñom Antoine li fi jaar ngelaw la rek bu magal gi ñewé mu jeex dootoo ko deggati lolu nga len wax ci magal ngeen di jaar di nax nit ñi bo ne li fi mam yi nak li nga fi nekké bu fekke ne da nga bëgg wax ne li nga fi mom la fi mam yi won ah gatti gatti nga bëgg a am de ya nga bëgg takal mam yi nak waxal yow li nga fi nekke ak li ngeen fi nekke rek yem ci ak mak yéen signé gor jigen ta mag yi signé wuñ ko won jamono yi ngeen ko signé jamono doy dox tarixa bi da ngeen ko wara doxal doxal ko motax mam yi daawu ñu dem di laaji ji adiya gabok Libreville ak Chine ak fu ne difa dañ ci ay compte lolu koy def Iya na ngi dox waaye bu ñu waxee rek ngeen bëgg a dij tëj nit ñi tarixa bi kañ tay dox ndax maam yi amul ci benn archive boobu mën a tegal chaise galawaar bi naan ma maam bii moo ci toogoon ah tarixa bu dox la àdduna bu dox la nga naan ñu àdduna du dox kii tarixa bi du dox na mu doone woon rek lay doone te yéen ñëpp ngeen changé ay kër yor fi ay kër yoo xam ne maam yi kenn amu ko ci woon dawal oto yoo xam ne kenn amu ko ci woon toog ci chaise yoo xam ne kenn amu ko ci woon dekk ci avion yi suba ak ngon guddeeg bëccëg yaa ngi ci appartement ak avion yi waaye li nga def ku mës a gis bi ku mës a gis li yaa ngi dox kañ garam bu bo sal tay do ko sal suba loolu dox la ah! ñun daal da ngeen ñuy dëj ci pëndax mi rek di dem seen yoon bu ñu waxee ngeen ne yoon yi dafa ah kon maam yi li lañ fi nekkoon li ngeen fi nekk di lañ fi nekk woon kon carte gi leer na carte gi leer na du ma la yeggal du ma la sa bàyyi di la yeggal parce que kenn gëmatu la nag yaa toog si say caaxaan de tuubaa ngi noonu ndox maa ngi noonu li fi xew yëpp xam nga ko lañ fa rey yëpp xam nga ko lekk bi la fa xiif xam nga ko mbas mi kenn gisatu lool mbas jeex na tey nag génnaat na ci sa doomu gerte nga di ma saf doomu gerte ñetti doom yooyu ku mas gis lii ku mas gis lii loo ñu tere lu ne yaa ngi ci ma ngi xaar ba kenn yëngu fi ku fi yëngu ma bloqué la ku fi yëngu rek ma bloqué la lu leer la leen wax li ñoo ko sant boy waaw yaay kabi waaw. digal ko wa sant yaay kabi waaw. carte ngi ni ko ay aaye. ko wa commencé waaw. bye bye. mahal. mi ngoog mi ngoog ku ma sa gis li bëgguma siiw lise duma watu waaye bëgguma gis ku watu bëgguma siiw lise duma nangam borom jëre bu muy yi di mel ni portemante ah duma udise. lise magis gis ku si lise duma watu bëgguma gis ku watu ku watu ma xolli sa der ku takk greffage nangam dëggal len sen bopp rek màggal a ngi ñëw ñu ngi xaar ba xam ndax video yi dinañ ci gis ak ku or ñu ngi xaar du kap ngeen xotti lam ngeen nangu pantalon ngeen dindi gerefaas ngeen dagg mees ngeen dagg ñu ngi xaar màggal la ngi ñëw da ngeen dëggu rek da ngeen dëggu rek lu waay di wone na ko doon lu waay di def rek na ci dëggu da ngeen di bon da ngeen di bon nekk leen ay nit ngeen bañ nekk leen ay nit ngeen bañ côté toroxal jam rek ta jam yalla mom len leen <laughs> dana leer dana leer dana leer kenn ku nek dinañ la dinañ la dinañ la teunk kenn ku nek dinañ la sul yow kessa nga def sa bir bàmmeel xol boy reccu kan moy ñew kooku mom lu leer la booy ko joy ñu xam ndax ab serign dala fay fek en tout cas dal ñun ñu ngi ci ciona yeen jigen di senegal nak jigéen di Casamance yaa ngi si power on bluetooth mode Japp ngeen nax waa ba tëj ko kaso toog nag ne yéen a ngi ratissé seen dëkk tëj lu waa kaso kenn tëju ko Ousmane kenn tëju ko ku dul Mountakha ak Maki ak Bass Abdou Khadre mii dégg naa nag doom ji génn na naan nangam nangam fii kenn du fi nax kenn fii lii moo fi am ci yoon bi lii naxaata amu fi naxaata amu fi arama teg ko fii du fi am de fii seen borom sunu boroom nee na ku ma jaamu may sa boor sunu borom nee na ku ma jaamuwul it may sa boor sunu boroom nee na àjjana man dong maa am keneen amul keneen sunu borom nee na sama àjjana ku ma jaamuwul du fa dugg man ci saa bopp li ma leen ciy dollil man Ahmadu mooy jaamu leen yàlla jaamu len yalla sa bop lay jaamu yalla jaamu luma len yalla jaamu len yalla sa bop lay jaamu yalla jaamu luma len yalla jaamu len yalla sa bop lay jaamu yalla yawmal khiyamati duma fa taxaw di layoo kenn mbaamay layoo di yal kenn mbaamay layoo kenn ñaari baat na ma sama borom di laaj famuy tax famuy taxawal borom jamono yep buma fa taxawale nema ahmadu na nga def ak jami mané ko bind wax naa ñu dégg jëf naa mm-hmm. lii leer <coughs> xam nga ne ko romb yàlla ci ab séesam romb romb yonenteem ci ab séesam xam nga fay fekk Ahmadou Ahmadou li mu wax leer na mu ngi nii Ahmadou ko wax man waxuma kii nag dafay laaj anamu question la dama ci diine ngeen ñu bëgg a nax de du demee noonu de du demee de noonu. paa dañ bind bàyyi fi bind bi làq-làq feeñ du demee de kii jàngale lii man wax naa ak moom anam ba mu liiree lii ba pare la ko fi gaa yi jëlee dégg naa nag doomam génn nee na waaw sëñ bi yeguloon mbir mi ba mu ko yegee démb la ko doog yeg ba sirali génn di ko wax aha waaw kon yéen da ngeen bëgg a wax ne kooku bu gis nga fi ku wax feeñ ku wax feeñ léegi sëriñ bi nga xam ne moom moo taxaw fii ne moom mooy sëriñu Ousmane Sonko yóbbul ko xarum tabaski moom la sëñ bi yebaloon pour mu ñëw ba ñuy tégal Macky ñëw ñaan waa kooku dangeen bëgg ne daa yëg mbir mi ba pare tënkam lu wala daa complot ak Mountakha wax leen dama leen di laaj man de ci weewu béy ci weewu béy ci weewu béy jour ba ñu jàppee Ousmane Sonko ci weewu béy ci lañ yónnee ci xalif généraux yépp wax leen ne jàpp nañ ko maa yi Muntaxa Mbay Si Cerno ci kaw ci suuf ak duudu clandestin parce que ñoom ils sont ay maillon France lañ ñoom lañ santoon mission bi ba ñu waree ne bàyyi leen nag Macky Muntaxa dafa génn wax ci turu xalif généraux yépp mbas mi ñëw ñuy tëj jumaa yi Mountakha ne du tëj mbay si tëj six mois wala huit dëgg la wala du dëgg bu dul dëgg nee leen ma du dëgg réew mi ay tappale moo fi am paa yi dañuy tappale ci kaw ñan lañuy tappale seen avenir seeni doom ñi leen yàlla wax ne bu ngeen matalee ndaw sama alal la alalu yàlla la ñu ne yow yàlla sa alal jooju lañuy soppi ñun dañuy nguuru ci kaw ndaw yi lañuy toog def leen ay mbaam ni ko imaam waxe ŋaax rek wayaa yooyu ñu ngi dee ci frontières yi wayaa yooy gaal yi yooy yooyu insurrection wayaa ñu wayaa yooyu lii wayaa yooyu te ndul wayaa yooyu ndul moo fi am amul leneen lii moo fi am gis nga bu ngeen bëggut a nekk ay nit Don ay jaa ay ay ay ay ay ay xamul lu mu leen war wax dul lu bari xaaral ma continuer sama yoon ñii dama leen doon jox yóbbal rek dama leen doon jox yóbbal bismillahi Assalamualaikum rahim wabarakatuh. rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki sénégal ñoo ngi di yi ñaanal te ci yalla mi ko am tuddu ko jeexal yalla bur yalla boole ñu defal jamm te saxalal ñu ndimbalam gannaaw bu ñu nuyoo ñeb rek ñew ci ismaïl major Fall di ko wax day ñewati nga da ngay Antoine comme ni ko waa ji waxee Antoine te nga ba mu doy ba mu bari xamna naa leen lay jëkk laaj rek moy bi nga fi geej yaag Antoine ci bopam da nga neewon ubbi ngeen seeni buntu peuple bi chaque weer da ngeen fi ñew ma ne leen déedéet da ngeen a jàpp Ousmane Sonko ci këram génn bëgg a wax ak nit ñi waaye la leen peuple bi tontu woon tax na ñemewut ñemeetu la na war a dellusiwaat wala ku ciy dellusiwaat ci leneen ngay wax Antoine ñëwaat na fi Antoine te ba mu tax dell ci benn kaar ba mu paree ñu décorti ko ko wan ko ne ko li nga fi wax yëpp da ngay Antoine Ismaïla ñëw nga fi ba démb sa jigéen Aïssata Tall Sall borom médecin yi ñoo ne bal ñu fekk ci yaramu nit ñi bali bali manifestant yi la momit Antoine on na ñewati na barki de bu Antoine médecin yi li ñu man moy balagi ni waye balistique mo lay wax bal bi fan la jóge yeen da ngeen antoine sen ak seen sago léegi waaw ana li ngeen jàngoon dafa melni yentam joge tam ci université yi jangulen politique jàngu ni ñuy yoree gouvernement nan ngeen mën a sàgganee ak ci ñàkk solo ba dem ak Ousmane Sonko ba politiquement mu leen di dominer ba léegi justice ngeen di jël ak doole abus di potere pour mën ko neutraliser yéen Ousmane Sonko musu leen a woo ci lenn lu dul politiquement ñëw leen wane li ngeen fi def ak li ngeen war a def ci loolu la leen jàpp yéen ñëpp dugal leen ci mbuus ba xex xeexin boobu nga xam ne moom ngeen laajoon yéen bi ngeen fi ñëw waxu leen da ngeen di teg réew mi ci benn système lu dul ci politique pour jaarali ci politique ba mën a liggéey réew mi Ousmane Sonko fekk si leen ci politique bi yor ay diplôme comme yéen wala parti Pastef bi yor parti comme yéen ànd ak ñu bari gannaaw bu ngeen ko ñu ngeen ànd ak ay intellectuel ku leen neex ñu fekk si leen ku mën a wax ci politique andi ngeen ko yor kaddu yi yor alal ji yor signature yi yor moyens yi Ousmane Sonko jàpp leen ci politique di leen dóor di leen dóor di leen dóor ba ngeen dëkkee xen léegi di leen dóor ba ngeen dëkkee xen di leen dóor ba kuñ ne si ñëwal wuj si si sax nga rek ma wooyee du ma dem di leen dóor ba ministre bu ngeen dugal ma Macky Sall Ousmane ko dóor ko ngeen changé beneen di leen dóor ba dóor seen député yi assemblée nationale dileen leen dóor ba sago amatuloon ngeen wut ay marron de feu di leen dóor ba ngeen am ay gros bras di leen dóor ba ngeen wut ay nervi yépp ci politique yéen wax dëgg yàlla gàcceel ngeen seen bopp ci kaw suuf waaye gàcceel ngeen Sénégalais yëpp mais gàcceel ngeen seen mbokk yi parce que nag Ousmane Sonko bi fi ñëwee léegi woowu leen ci daara lu dul politiquement rek la ngeen njëkk def mooy daw làqu ci xale bu jigéen boo xam ne ndeysaan yóor gi boo ko pesee amatul cinquante pour cent ak ñàkk xelam tax ngeen dugal ko ci geeru état di leen dóor di leen dóor ba yéen ci seen bopp seen i fils ak seen procureur yi di waat li xale bi waxoon te yéen a ko ko wax loo du leen dóor ba jàpp seen sàcc ci Mbaye Niang ngeen mujj wër ba tëgg carte gi naan Mame Mbaye demal yóbbu ko ci suñu juge yi mu àtte ko ne da laa tuumaal waaye lim la tuumaal moom buñ ci wax yéen dañ leen a dóor ba amatule ba maanaam maanaam yéen politiquement bu ngeen doon mbërum làmb Ousmane Sonko moom ak ñim àndal muy Pastef dafa dóor seen parti bi seen coalition bi ba ngeen mandi Antoine Diome Ismaïla Madior Fall da ngeen a mandi ba xamatu leen lu ngeen di wax te Ousmane Sonko ci politiquement rek la leen dóor Ismaïla Madior Fall ñëw nga démb ne ñun dañoo respecté droit de dañ ko jox chambre jox ko ventilo jox ko jox ko yurul jeex wa legi ñi and ak mom ngeen këpp sarta ba japp ko ñom duñ ay lom ñen da ngeen a mandi parce que nit bu démé ba limuy wax wax tut té du avant lolu xel woon nag kon Ousmane Sonko mandal na len yeen ñepp da ngeen a mandi lan ngeen mandi moy jeune juge ku ngeen andi da defu lim bëgg ngeen dindi ko fa bu lolu passé dañ leen a xuuxal bu lolu passé moy da ngeen a ragal ñëmu ñemewuleen wo Ousmane Sonko politiquement démocratiquement ngeen seq réew mi ku ne ci yéen def maninam waa dëkk bi jugé kan lañ am confiance mais fan ngeen mujj dugal ngeen xaalis ba xaalis di bëgg a jeex seeni loxo ngeen dugal ay communicateur traditionnel dugal presse dugal marabu yi dugal dugal mbooleem moyens yi ngeen am dugal police dugal gendarmerie fu ne ngeen changé seeni seeni seeni seeni nit lépp pour télé politique lépp pour tële li ngeen doon woote ne mën ngeen ko na fi Ablaye Wade jóg ñu jox leen réew mi yéen ñi àndaloon ñi ñëw gannaaw gi yëpp loolu leen tax a dugg si ku ci ne ci yéen fi nekkoon dara la foor mu doon am salaire waaye dafa mujj bàyyi ñëw ci politique bi pour ba a yor réew mi di jaar ci yoon jaarale nit ñi ci yoon jaarale mi ci yoon liggéey bi dox nit ñi dund dund gu mucc ayib institution yi dox këyit yi dox démocratie bi jox affaire étrangère di dox usines yi di dox loolu ngeen tële loolu ngeen tële la leen Ousmane Sonko dóore yéen du leen ay mbër Macky Sall yow doo mbëru politique dem nga ba booy def dara ci réew dañ koy nëbbatu dem nga ba booy def dara dañ koy nëbbatu lu bëree bëri journaliste yi nga xam ne mënoo leen a corrompi ñoom ñoo koy dem ba découvrir ko bi Sénégalais yi yëg na jënd nga avion dañ koo nëbbu kon yow politiquement Ousmane Sonko dem na ba ngay def di nëbbatu da ngay def di nëbbatu Ismaïla Madior Fall bala ngaa wax ne Ousmane Sonko na góorgóorlu dëgëral boppam loolu lañ ko wara a wax c'est vrai bi Macky Sall yambar yambar lu dem ci sëñ Baara boobu ànd ak moom ci politique yaakaar naa yaa nga université waaye jamono bii barki démb bi addina bi yëpp soxlaa suñ pétrole bi ñu jox ko France mi fay la gënoon la tuuti nekkoon cinquième position ñi bàyyi première bàyyi deux bàyyi trois bàyyi quatre ba mu jaral Macky sàll mu dàq ab ministre wala ministre am démissionné du joxe pétrole bi ci prix boobu boobu yaakaar naa soriwoo gouvernement bi ak yeneen ñu fi xew yow munoo wax Macky sàll mu bañ a yembar yembar lu dëgër dëgër lu boom yow yaa ñuy conseil pour ñu wax Ousmane Sonko ne ko na dëgër dëgër suñu leader ko war a wax. mais balaa ñuy wax loolu day fekk sa leader dëgër ngeen yow wóor na la ne Macky Sall mi ngi nii mënul bañ ànd ak waa CEDEAO dem xeexi jeeg Niger donte la bëgg ko ci constat yi mu toll tey ci réewam wóoluwul dugal militaire yi ci benn guerre parce que des déjà am na luñ seqoon ba mu neexal leen ba changé seeni place ba ñu bëri mer ñu bëri kontaan waaye gis nga bu ñu doxee ba guerre bi dem une semaine fukki fan ak juróom ba ñu delloo si nationale bu Sénégal cinquante cercueil wala cent wala deux cent personnes yoo xam ne dañu leen rey bu ñëwee armée bi dana amaat yëngu Macky Sall xam na loolu te ñoom dong yoruñ ay fetal ñoom dong duñu ay góor seeni moromi ndaw lañ fay fekk lu ñu wóolu wóolu seen bopp ñi ñuy fekk la ñu wóoloo seen bopp bu dee amee ci camp yëpp lay jógee comme nag ñoom nangu ñoo a jël seen responsable diggante ñëpp peuple bi ba bi Macky Sall tegee boppam ci kaw leneen lu dul moom ñu taxaw di ko seetaan peuple bi di wër-wërloog nit ñi léegi danañ dem ci guerre far force parce que Macky dana leen ci yóbbu Macky ñemewut a bañal waa France ndigalal ndigalam li muy jox waa CEDEAO nga xam ne chaque intérêt de France CEDEAO dafay intervenir kon yow neel Macky Sall na góorgóorlu taxaw de France man situation bi ma toll lu manque téeméeri nit dee sama dëkk. ñu bëree bëri nañ ci kaso bi leader opposition bi maa ngi ko ñàpp ci lu dëgg ci téléphone te bàyyi ñu sàcc milliards askan bi bëgg baal ñu yóbbu cent quarante milliards ak ñu yóbbu ak ñu yóbbu vingt neuf yóbbu quatre vingt quatorze am naa lu ma doy monsieur le France mënu ma dem soo amee looy conseil loo ñuy jox demal nga wax ko sa président de la république bi nga xam ne dafa ragal France ba circonstance yi mu ko mën a fekk mën na koo dugal ci guerre comme ni mu koy dugalee ci mbooleem xeetu feebar yi comme comme comme yu dul jeex du xaaj comme ni muy nangoo pétrole am digg bëccëg isma animateur waaw guys waaw yal na néew yi bari papa yegal yi yal na néew Ismaïla Madior Fall ñun soxlawuñu sa conseil parce que sa jikko doyatuñu da ngaa taxaw fi wax ne président de la république constitution bu bees bi nee na kenn kenn kenn mën ta def lu ñaari mandat ci boppu réewum Sénégal ñu del siwaat nga bëgg a wal carte nañu en principe yow benn gone buy jàng nawlootu la xam nga lu dañ la méré ba lak fa nga jangé won ndax antoine yi nga jàngoon université ci téré yam ne woon la xalé ya tal wéy la la xalé ya fa fa nga jangé ñi at nit ñi fa lañ jangé moy lan moy dafa am téré ñu fa yo xam dañ lay jangal ba lan li moy dëgg waye su la arrangé wut lañ ko bàyyi te jël téré fen bi xalé yi boole téré dëgg ba téré fen ba yépp tal sis mamadou sek léegi naa ku ñëw nga doobu ko demanda de dépôt dañ la mësa dépôt yow yow sa jikko ñaaw na dégg nañ li nga def ab footballeur nga fexe ba jabaram tas dem wàcc sa jabar bandoone ko dem jëli jabaram dem jëli jabaram loolu histoire bu yàgg diine andi na ko wante gàcce rek ci lay mujj bu fekkee bàyyi sa jabar jël jabari jàmbur wala dimbale ba say tas nga jël ko moom nga bëggoon a serale sa xol ñàkk nga yow jabar moom sa xol dootu ci sedd da nga kaa waxul nit ñi waaye actuellement yaa ngi dund lu toll ni que fase woon ndaw sa la muy dund ci moom parce que jigéen mënoo koo ni muy def ci kanam seetu bi masqué wu ba rafet noonu la jikkoom mel da koy masqué waaye mënoo ko dindi lam baroon jëkkër ji wan na la ko te bi yoon yow ñemewoo koo ba ndax amoo benn siis Mamadou Seck bu mën a dim bu la mën a dimbale wala bu mën a dimbale ndaw si ba mu bàyyi yow jéem ko seet ndaw si jikkoom changé wu de lam defoon waajal lay def mag ñi nee nañu jigéen bu mas a sëy ba tas soo ñëwee ne ko bëgg naa la du la wuy de day def teqar ree mag ñi ne ndax xam nga li jigéen gii rek moo koy saay jabar ji xam naa ku koy tëddee suba am ngoon guddeeg bëccëg xam naa ku koy di tëddee de bàyyi leen rek yàlla leen di nattu ay doomeram lañ xam naa koy tëddee jabar ji ree nga ne déedéet mu ne nim la nar a def lay ree nam defoon jëkkër ja te nar la ko def te yow miy dugg si mu nar la ko def te accès guloon ci loolu lay ree Ciss Mamadou Seck yaa ma rusloo yaag Cheikh Yirim Seck. Oh. baal ma rek dugalal kii vidéo imam bi imam Rafi Bakel donc dafa mel ni ngeen am xaalis da leen a jomb ba tax ni ngeen di amee xaalis doon la ñaaw na da ngeen koy wut wala boog yéen bu ngeen amee xaalis li ngeen am ci xaalis bu ngeen paree du ngeen dem ci bitig ba jënd ci benn affaire naan ko am na koo xam ne day xëy suba ba ngoon di wut mille francs te fu mu romb romb lu jar ñaari junni xam nga lu tax jëlu ko daa mel yorul seen jikko moo tax Antoine Diome ministre de l'intérieur ne nga dangaa du dissoudre Pastef xaw ma ban sarte nga ko teg waaye su fekkee ministre de l'intérieur bu territoire bu ne mën naa xëy jël parti bu ko néexut ne ko kaay bokkatoo kon démocratie amul li ñu leen di wax dañ leen di nax parce que nit nag wax dëgg yàlla sab noonu su fekkee saa yu la neexee nga rendi ko kon kay loolu du démocratie loolu loi boobu lañ ko dindi bi ci nag mooy boo di sudul Pastef da ngaa war a xaar ba si si d'accord ni Pastef dafa def loo xam ne jar na ko te yow lu mu Pastef def rek parti bi nga bokk sa coalition def nañ lépp loolu te nga ne ceel kon yow maandu woo Antoine maandu woo boo maandu woon da ngay bañ li ngay def wala bu dee a Sall la la ko sant nga def ni sama moromi ndaw li nga xam ne gënoo leen Thierno Alassane Sall fii la démissionné ne Macky Sall man du ma nangu ñu jël pétrole Sénégal bi di ko jox quatrième position wala cinquième pardon ki nga xam ne bu ñëpp fay moom junni la fay am nañu fay ba juróomi junni du ma ko ko jox mu bañ ñu dàq ko pare naa cee wax léegi yow li muy tekki mooy Sénégal yi la jox seeni mbir même fii ko ndax sa moromu ndaw lee moo xam ne gënoo ko jàng ëppoo ko fit ëppoo ko dara ji ci réew mi dara ëppale woo ko ko bu bu la ëppale ëppale woo moom moo taxaw ne loraangay Sénégal du ma ci dugg yow nga taxaw ne loraangay Sénégal ci ngay ne bat bu set Antoine tegal yi génnoon ci mbedd mi ay civil yor ko te yow lañ dénk sécurité réew mi civil yooyu kan nga ci jàpp gum ba siise ko bala ngaa jàpp Sonko ci portable jàmbur wala doon ñi dee moom ñoom duñ ay citoyen sénégalais ba loi dafa dindi ci caution Sénégal de ku ñu rey ci mbedd mi ak fenal ministre de l'intérieur waru cee wax waaye xale bu jigéen buy tooñ jàmbur di ko filmer suñ nangoo téléphone am yow man mën ngaa jàpp waaja mel Madior Fall ñëw di ñu expliquer yan condition la ñu téye Sonko laaju ñu leen loolu bàyyi leen jàmbur mu dem bu dee lu mu néew néew ci ngor ay gor ngeen woon ci gor ngeen jóge na feeñ ci yéen doomu aadama nag wax dëgg yàlla ci jikkoom la ñuy xamee lu ci yóor gi ci jikkoom la ñuy xamee li ci deretam am leen jom tuuti ngeen am ngor lu mu néew néew ngeen dee ngir dëgg même bu dee benn yoon ay Cheikh la ñuy salte rek mboolem ministre bu Macky Sall yebal ci population bi bu dikkee ne day Antoine Antoine Antoine ba àgg ci jom rek daal di dem ñibbi bu suraa keneen ñëwaat lépp lu mu wax bareeku ndaw mooy xëy dindi te bu yàggee ngeen ñëwaat yàgg Antoine Ismaïla Madior da ngeen ne woon da ngeen di ñëwaat chaque weer ci population bi ubbi ngeen seeni buntu askan bi askan bi bu yeboo ngeen tëj seeni buntu parce que buntu yi ngeen leen ubbil du leen leen soxla woon buntu jom buntu ak salaire askan bi ngeen di lekk man dafa mel ni leen Macky Sall lay may moo ëpp li leen salaire bi ñu leen di jox ci xaalisu contribuable bon sénégalais yi mais même bu doon Macky Sall dañu leen di fay un million wala deux millions mu di leen di may dix millions par weer dix millions dese jom ko gën dix millions wax dëgg ko gën dix millions kuñ lor nga dimbale ko ci loi yi ci wax moo ko gën dix millions nga bañ a fexe kenn du lor sa moo ko gën dix millions sa honneur li nga jàngoon kilifa gi nga doon nga sàmm ko moo ko gën dix millions nga fàttaliku ne dix millions mën ngaa dee dem ba sa doom féete ci dugg ci kaso bi gis nga ñi ngeen japp ni ay doomi jàmbur lañ comme ni ngeen amee doom yàlla musal na leen nag ci bi ngeen di toll ni ñoom kenn rayu leen kenn tëju leen ci kaso bi waaye gis nga suñ borom dafa maandu ci li muy def mën ci seen dund gi lañ leen di wan seen njaboot wala ku jege seen njaboot wala seen mbokk ñu di ko mbugal mbugal moo xam ne du ngeen ci man dara te loolu nag du di dara ci li nga bari na ci ñoo xam seen jabar yi fañ leen di de bari na ci lool loolu ci mbugal la bokk de aha ci ñoom kilifa yi côté sëriñ si ak côté politique bi bari na ci ñoom ñoo xam ne seen jabar yi ñu ngi leen di dëpp ka dippi de bañu dara ak lu ñu taaru taaru seen taat yi day laaj rek li nga xam ne moom la leen yàllay xaare mooy li ngeen jëf ak seen loxo da ngeen a yoroon askan bi ñu del fay weer ngeen nekk seen kanam di seetaan ay caaxaan ministre de l'intérieur da ngeen ne da ngay di sudul parce que parti bi dafa def nangam ak nangam ngeen layalay ba mu bëri procureur de la république wax a wax a wax ba naan li ngay wax dara Sénégal bi mujj juru démb dara la gëmut ci li ngay wax parce que lu tax de la euh, procureur de li nga wax dara du ci dëgg yaag procureur yi fi jaar yaag Amadou Diouf yaag Bakhoum yaag ñeneen ak ñeneen génn tal tali yaag Basirou Gueye yéen Macky Sall dafa yàq seen der te leen ko amu ci kenn koo xam ne bi muy génn li muy wax ñor na Sénégalais yi lu gën a ñor li ngeen nëbb bañ ko wax lan moo tax affaire de la bi ngeen nekkee ci Ousmane Sonko Aïssata Tall Sall la génn Ousmane lii féete na bor Ousmane lee féete na ci bor le seul et unique bandit bu Sénégal mooy Ousmane Sonko ñeen yeneen ñu baax ñi yéen ñi nga xamante ne ni Ousmane Sonko rek moo leen traîné naaw te ci politiquement la leen dóor ba ngeen mandi politiquement la leen dóor ba seen jom naaw politiquement la leen dóor ba seen fit dem politiquement la leen dóor ba mu ñemeetu leen wax dëgg yéen dëgg da ngeen ko te lu ko jëlee ci Muntaka ba wacc ci sa Tall sal ministre yek député yek sëriñ ci ñi nangu maletu Macky Sall ñom ñepp li ñu nangu bu ko Ousmane Sonko nang won mom mo gën mom moy gënal Macky Sall ñom ñepp billahi wallahi tallahi li ngeen nang ba mu jaral leen ngeen tek ko lu 10 bu ko nang won Macky Sall mom lay gëna fonk ko yel ñepp nak ñepp bu Ousmane ne waaw rek yi def ko deuxième yéen ñëpp Macky bërëng leen ci doomu taal ñàkk gore mooy ngay toroxal koo xam ne moo la gën a cher nga dimbali koo xam ne moo la gën a cher. leen ko ragal léegi Ousmane Sonko dóor na leen Ousmane Sonko gagné na leen muy Macky Sall gouvernement am yéen ñëpp amu ci kenn ku ci ñemee jaar ci dëgg affronté Ousmane Sonko ci fen rek ngeen di jaar. tan ci gendarme tan ci police tan ci dem jàpp ko tan ci sosal ko dul jeex bat bu set ay plainte ñëw dëkk bi soxla ngeen àtt leen yéen a tegoon loolu am ay population dañoo a ab ay nit dañoo war a organiser wu di dund ci ay cercle nit ñi war koo xam am ñu koy sàmm am ñuy àtte charte ya loolu yëpp Sénégal am na ko xam nga lan la ñu amul mooy njiit yu jub justice bu Sénégal ñi leen ko yéen gouvernement bi yéen politiciens yi ba leen leen ñu def liñ jàngoon ngeen wut ñu sérieux yéen mënu leen a jël sax suuf mu sérieux teg ci kanam parce que bëggu leen mu def lu sérieux yéen lan la leen Ousmane Sonko def ay ah, yéen di Ousmane bu fi doonoon ñaari parti kon ngeen dee benn nit ci benn parti ku xuuxal leen yéen coalition bu toll li ngeen toll ngeen di jaxasoo bu ngeen boolooyee tàmbali ko déw di jëndaat ñeneen lu ne ngeen dugg ci ci menn parti politique Pastef les patriotes du Sénégal l'éthique e la fraternité mënu leen a taxee ba mënal ko dara ci dëgg li ngeen ko tëj këram du dëgg li ngeen ko sise ci Adji Sarr du dëgg li ngeen ko wax ci Mame Mbaye du dëgg li wax ci portable bi du dëgg yéen Ousmane kañ ngeen koy gagné ci dëgg Macky Sall amal jom yaag ñi nga àndal ngeen jaar au moins benn yoon jéem a daane Ousmane Sonko ci dëgg parce que nag wax dëgg yàlla dëgg moo taxoon ñu teg leen foofu dëgg moo tax Sénégal yi booloo def benn réew dëgg moo tax ñuy sàmmoonte ak àqi doomu aadama mais à chaque fois mënu leen a fexe ba daane Ousmane ci dëgg mais lii dafa ruslu Ismaïla Madior Fall am sa xam-xam bu réy bi ñuy wax Aziz Ndanzane an sa njàng mu yaatu mi Antoine Diome dañu ne juge nga woon waaye a mën a jàngali ay loi mooy wax rek xale ya dañoo taal fa ngeen jànge woon yéen ñëpp parce que la ngeen jàngoon da ngeen koo bàyyi benn jàngu leen woon lu baax ba xale yi taal ko wala dafa am lu bon lu ngeen dugg ba xale yi yëpp leen fa ngeen jàngoon parce que bëggatuñ Sénégal ëllëg xale yi dañuy bañ yeneen ponkal yu mel nii ëllëg jóge ci euh, université Cheikh Anta Diop wala beneen université ñu jàngal leen euh, affaire justice ba ñu mokkal ñëw taxaw ci baro yi kàcc loolu la ñuy bañ comme yéen rusu leen ko xale yi moom am nañ gàcce xam nga xale yi duñ def dem taal reenu garab da ngeen toogoon ba mel ni ngeen mel waaye xam nga lan la ñun liñ gëm mooy yéen rek yéen a yàqu ndax am na ñeneen ñu fa jànge rek ñoom ci Sénégal ëpp leen xam-xam fuuf Macky Sall bañ leen a nommé ak ministre de la justice te bu ñu leen fa tegee ñu wax dëgg ñaata justice ngeen déplacé parce que dañu wax lu leen neexut seen xol du mas a sedd seen xol du mës a sedd parce que liy seral seen xol mooy ay fen te fen du seral xol noppalu leen jaar leen ci dëgg ndax ngeen mës tëdd nelaw jaar leen ci dëgg ndax ngeen mës a tëdd nelaw au moins wallahi yéen a gën a sonn ko yàlla bind Macky Sall ak ñi ànd ak moom Antoine Diome Ismaïla Madior Fall Aïssata Tall Sall ak ñi ne ci gouvernement bi nekk ci fenn yëpp yéen gën a sonn ci senegal da ngeen di wax ba wane ginnaaw ñibbi di wokk doq di dem di yóoru nag internet bi di déglu nit ñi lan lañ leen di wax buñu waxee ba pare xam nga lu leen di dal mooy la waa ji waxoon yéen kenn du leen laaj lu tax ngeen wax lii a nee boo laaj nit ki ne ko lu tax nga fen ma bu dee fenkat la dalay fenaat moo tax ngeen mën ngeen a toogaat de parce que chaque fois bu ngeen ñëwee lii rek ngeen di continuer wax lu dul dëgg rek ab accident bu am cib car ministre de l'intérieur njëkk fa ana intervenant yi sapeur pompier médecin yi ñii fay lakk yi gendarme ak police ñu war a constater yi ak kan moo ko ministre de l'Intérieur ci boppam moo ñëwal boppam yow da ngaa waroon sol tenue Antoine waroo woon a sol lu weex yow da ngaa waroon sol tenue am na nag ñu ne waa ji doon dawal kaar bi sax ab police la yaa ko carrière kaay ma wax la lu Antoine def ci diggante bi kaay ma wax lan la Antoine def ci diggante bi ba créé loolu yëpp Antoine Diome moo gën a doomeeraam kuy doomeeraam ci këru àdduna kanamam gu ndaw googu gémmiñam gi mel ni tuunu waxañ dinaa la woon li Antoine def Antoine li mu def salaamaaleykum eh, grand frère Djidji nuyu naa ziar naa bàyyi ma jàmm salaam en fait euh, ñun nous avons une information de taille par rapport ak euh, si kaso yi ñun dañu am information xam ne carrément Antoine Diome bi muy bi si la wax si la sant ay takkadee ñu éliminer ay xale yu bëri sànq car am na benn émission boo xamante ne 2A TV boo laajtee Pa Assane jox lien bi nga déglu ko benn benn auto frigo la ñëpp ay néew ñëw ba Cambérène si la leen sot dugal leen si biir biir am na ay témoins yoo xam ne ñoo woote woon keroog di wax. te ne Sénégal mu géej gi am na quatre pour cent bi yoo gis nañ leen mais ay mais boo xoolee ay bal la leen gars am na fu gars yi gars yi commencé ñu gis ay ay pour cent léegi nag dañ bëgg léegi yow ak kay ci of hmm? ak ñoom ak na toll ngeen ñu ñu jéem xool ngeen gëstu kaso yi ñu xam xale yi njàppam ba xam ñu ko fa instant ñu bëri la gars yi boom instant xale ñoom dañ doon yëngu-yëngu si biir kaso yi di yëngu-yëngul waaw demal nañ ko si biir kaso yi Antoine Diome boom bari na nag dama bëgg na ngeen def investigation xool. waaw papa Antoine Diome moo def loolu ci réew mi kooku CPI mi ngi koy xaar du nee nañ xawaan la ñuy wër xawaan piège na leen wan na waa CPI que ni yéen xamu leen loi léegi nag génn réew mi moo leen tëj mais ba réew mi ñoo ñàkk fayda pour mën leen a. fexe ñun mën nañ koo gëm parce que barki démb la gendarmerie bàyyi benn jigéen ci buntu kër Ousmane Sonko ay weer mu ne fa ngeen ñëw di ko filmer ce wallahi Ismaïla Madior Fall yaag Antoine Diome ak mboolem ku ci nag xam ngeen ne loolu du noonu la ñuy sàcc te Ousmane Sonko du sàcc bu doon sàcc kon du ne fi mu ne tey ñi sàcc ñëpp ja yéen ci yéen jàmmi àddina mu def leen ak jàmmi àllaaxira wala ñeen ci seen ñeen ci seen jàmm wala seen mbokk ñu ngi ci jàmm mais ñoom ñu ngi ci fitna kenn ku ne li nga jëlal nit ñi bala ngaa tudd sa xel dana ci dem foog nga romb loo xam ne yaa ngi ko yor ti moomoo moo ko te doo am jàmm yéen leen am jom Sénégalais ngir yàlla réew moo xam ne dañoo rëy làmmiñ ci Sénégal ci ci Afrique ba yaakaar nañ ne mboolem kuy baax ci Afrique kuy baax ci Afrique wala kuy baax ci ko suuf bu yonent bi passé suñ mag ñoo ci topp te yéen ñëpp ne ngeen doomi mag ñoo ñëw sëti mag ñu seeni sëriñ lañu ngeen dafa dem ñu di leen di ñaanal ngeen dafa dem ñu di leen di waxal lu baax te mënu leen a baax am na naxee gu ci nekk góor leen Sénégal yi ay mag ngeen ay kilifa ngeen yéen ñi ci gouvernement bi politique ngeen waxoon ne ngeen di def politique mooy doomu nit ki ci ndam yëpp yow ngay dox ma dox ngay dox ma dox ba sama doom yi mujj a jeex sa yoon loolu mooy intellectuel mais jël police ne ko trop jël gendarmerie ne ko trop demal màttal ma diw demal attaqué diw jël si ne ko trop mu def li muy dem nga remplace si dem na tànji dem na si maam jàll dem na si si bu ngeen def na dara mu jàll parce que li ngeen koy def loo baaxul moo tax bu baaxoon da ngeen ko fay bàyyi mu continuer wala mu sujet nga xam ne ñor na Sénégalais yi bu leen neex ngeen ne dafa sàcc. indi seen kayit këyit yéeg wàcc génne xaalu askan bi jël ay avion dem ci biir monde bi fu ne ngeen seeti dajale dajale ba ñëw jox ko benn procureur mu ñëw taxaw ci kanam askan bi ne leen diwa fi jël lii diwa def nangam diwa def nangam ba ñëpp tey seen gémmiñ ne laay ñu toog benn jour ngeen ñëwaat ne non dañ leen doon ndax diw jël wala jël na waaye nañ ko baal mu dem xaay bi du ko fay yéen du noonu la ñuy yërëm réew Macky Sall du noonu la ñuy yëree réew waaye nag li ma jàpp rek mooy dëgg moom place bi mu amoon ci seen xel yi dafa chronique dafuñ ko ci fikiroon sax day daw génn ku bàyyi Mansour Faye nga xam ne bi bi Macky Sall nekkagul président de République xar mu baax amu ko woon fi mu dëkk dëkk ba mu ne ñemewu faa posé candidat pour dawal benn taxi léegi mu dem a dem ba buñ ne président de la République mu ñëw taxaw ne maa koy doon ci waxi nit ñi man sax nga lépp ay pièces rek laa ko teg parce que ñoom seeni feem moom lepp lo gis ñuy yëngal do xaaree ba ci fin ba da ngay xam ne lii yëfi gone la yëfi gone mooy ñàkk wax dëgg mag du fen kilifa du fen gor ca wax ja gor day am lu mu rus gor day bañ lu bon gor day bañ tooñ moromu nawleem gor du seetaan ku ñuy tooñ gor du tooñ gor du ragal gor du ñàkk fit gor du ragal moromam gor du yàq alali jàmbur gor du jiite askan ay moromi gorom di leen def loo xam ne wóor na ko ne buñ ko ko defoon mu fee defal du ko neex bàyyi leen li ngeen def Sénégal yi bàyyi leen Sénégal ci jàmm ak salaam jéem leen a nekk ay nit doon ay gor bu fekkee ba tey jii dese ngeen ci lu mu néew néew lu toll ni benn millimètre deret wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf papa sénégalais yi nag laa waxal tey seetaan ngeen Setan ngeen gor ki doon dox ci seen avenir ki lank ne du sàcc gën a seer ci réew mi ñuy fexe di négocier ak moom mu bañ topp ngeen ko di ko tàccu di ko tàccu ba mu yaakaar ne su ko di sàcc seen al laale di ngeen jóg génne ko te yéen a ngi ci plage yi jigéenu Casamance yaa ngay xeex jigéenu xew yi nag ña ngay préparé màggal Touba bu tànd biir amee ci koñ bi ay ca kenn ku ci nekk màggal ga nag ñu ngi xaar na ngeen ñappaaxunte quelques jours ngénte on jolli suñ paree ngeen ak ñom ci ndox yi comme ay mbott yu ndaw seetaan rek ngeen mën waaye dëkk yépp a joy Ousmane ya gore bàjjo bi Ok. alors, comment, comment faut-il, hein, euh, on aura pour finir avec la spirale de coup d'État en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest Mais ben, le coup d'État, on est en train de finir avec, parce que ce que les gens se refusent là, c'est ça la fin des coups d'État. Aujourd'hui, qu'il y ait des armées ou bien qu'il y ait des élections maîtrisées par les Africains, par exemple, je donne un exemple. Si les gens n'aiment pas les coups d'État, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Macky Sall de dire la vérité sur les cas de son coup et de le mettre dans ses droits Qu'est-ce qui l'empêche Mais c'est la justice, ce n'est pas... Ce n'est pas une question, il n'y a pas de justice dans ces États-là, ça n'existe pas. Le juge, c'est Macky Sall, c'est lui qui juge. Dans ces États, il n'y a pas de justice, mon ami il faut que Macky Sall restaure les droits de son co organise des élections transparentes et qu'il ne nous présente pas les candidats de la France au Sénégal. Mais les Sénégalais aussi. En ça pourrait éviter un coup d'État. Les Sénégalais aussi, on pu dire la même chose du Mali, des autorités non, non, non, les Sénégalais, les Sénégalais, et les cas de Sénégalais, pour dire qu'il n'y a pas de justice aussi chez nous. Les cas de qui De Rasbach et de, de, de Mme Philippe Boré, certainement, pour dire qu'il n'y a pas de justice aussi au Mali. Bon, je crois, que, je crois que pour leur cas, vous avez suivi ce qui s'est passé avec eux. Et je vous laisse vous-même après faire la comparaison entre les deux cas. Puisque vous, parlez de justice, de manque de justice au, Sénégal. Au Sénégal, je vous dis, pour le cas de Sonko, il n'y a pas eu de justice. Pour le cas de Sonko, il n'y a pas eu de justice. Alors, si les gens n'aiment pas que les coups d'État aient lieu, il faut qu'ils respectent certains principes endogènes qui valorisent nos peuples. Sonko, aujourd'hui, il a montré par la voix des Sénégalais qu'il n'est pas n'importe qui au Sénégal. Mais les autres. À travers quoi mais à travers les mobilisations gigantesques du peuple qui est sorti et qui continue de soutenir. Est-ce que ces mobilisations est est-ce que ça suffit souvent pour dire à quel point le peuple nous aime Nous avons vu le référendum. Pourtant, quand on demande le malier, il y a 82% de Maliens qui... Là, là aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a qu'un seul segment, c'est l'armée. C'est pourquoi je dis il faut que nos armées soient dignes de nos peuples. Qu'est-ce que l'armée sénégalaise attend pour faire, pour mettre les Sénégalais dans leurs droits En quoi faisons en ramenant le Sénégal aux Sénégalais, parce que le Sénégal n'appartient plus au Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, honorable Mais il faut mettre en place, suivre l'exemple du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que vous invitez les Sénégalais, les militaires sénégalais à faire un coup d'État Mais bien sûr, vous savez, moi je ne mange pas mais moi, Il n'y a pas aujourd'hui un chef d'État en Afrique, en tout cas en Afrique occidentale aujourd'hui, au moment où je vous parle aujourd'hui, qui mérite le respect de son peuple. Cependant, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont quand même très reconnaissants des efforts qui ont été fournis par le président Macky Sall. Oh, vous savez, l'unanimité n'existe pas. Même Allah qui nous a créés n'a pas. Voilà. y a ngi toog de di ans. xaaral ma andi leen jigéenu Casamance ak jigéenu concert yi doomu xaraam yi tëyëxkat yi tëyëxkat yi duulkat Kati. soskat sos kati, duul ak daw ci ay gàmmu rek sosak ak ak daw ci daw sos Doul daw ci ay xaaral ma andil leen jigéenu eh, Casamance si ndeysaan ay jàmbaar lañ de du ñu bàyyi de wallahi azim man moo tax fi mu toll nii sama investissement yëpp fa te jigéen ña rek Casamance rek Casamance rek ndakaaru dóor fen wuruj dóor fen wuruj jaay gor dóor fen wuruj jaay gor dóor fen wuruj jaay gor su ma koy wax nag waxuma xeexkat yi de waxuma xeexkat yi de gor yaa ngi nii Ajá olè olè olè olè. Jọba jọba jọba jọba jọba o kí ni ọmọ. Ah, Yorene. Boba yu seri daw. Lay daw. Lay daw. Boo wootee ba pare kenn jarul daw yow taxawal rek. Boo saaga ba pare ne sëriñ ngay défendre dindi photo daw looy daw bu la sëriñ bi yaakaare tas po bu maamam de yow sëriñ bu la yaakaar de tas na pour mamam tok ci kaw farankulaayu yow rek yow mi di wote di daw numéro <coughs> baa ngi ni wote na daw na gay ki de mo ne ab sëriñ lay défendre ñemewut a toog numéro baa ngi ni wote na daw na ki de xam nga de sëriñ bu ko yaakaar billaay lal nga sa puubu maam toog <laughs> ci ki du mooy ki ki de du mo leen digene ci problème ki kii soldaaru soldaaru Sénégal la de kii kii ma gis nii baabaayoon Akhenaton ak Serigne dinaa tase ko yow kay tajal sa tasal sa puupu maam ak sa tuupu buubu maamu Serigne rek ba pare parce que ragal nga ñanguwuloo photo te kiy wax ak yow vidéo la def vidéo laa def gars yi ubbeeguma ligne nag ubbeeguma ligne ubbeeguma voilà toppati yen ñi wax seen sëriñ yi kenn mënu cee yëngu kenn mënu cee dagal boppam ay we sawaay ubbeeguma liñ bala ma lay bloqué ay sëriñ yo xamné ne kenn mënu see dagal sa bopp ay wé ñom ngeen top defan defaan daaw ba liñ leen di tuddal tekku ngeen di def fi ngeen commencé moy wonel sa kanam wonel sa kanam wonel sa kanam nit ki woné kanam no tuddu no tuddu no tuddu ñu wax leen turam fo dekk fo dekk fo dekk mu wax leen fi mu dekk yow doomu xaraam nga rek <laughs> kenn xamul li la rek toujours rek da ngeen di topp lu ngeen dul jàpp ila yow ya, mi dini parce que bu ngeen buuse ñemewu leen fu ngeen dem ku ngeen jéem a jàpp vidéo ngeen di teg bu koy ci daxante waaye nañ ma dimbali bu ma dem bu ma ñibbi Sénégal yéen kat leen ndayam li ngeen war a njëkk a lijjanti mooy ngeen toj seen puubu ndey fexe toog fi seen sëriñ si ne ngeen fexe faa dund te lu ngeen am mu yem ci yéen ndax sëriñ ci doyloowuñ li li ne ci réew dañuy génn di ko wuti ci ñi ngeen di woo ci biti yalwaan gu métti la ñuy def ak seeni grand boobu avion oh, avion ñu dugg fa ñoom seen bopp bu avion bi explosé woon sax seen grand boobu naaw ñoom seen bopp ay boo maytul ay li ngeen di gis ngeen bëgg a sonal nit ñi ubbi naa nit ñi <laughs> ubbi ku ñëw nag boo saagaa ba pare ngay défendre sa sëriñ xamal ne photo laa wone di wax yàpp yi yëngu na nga fexe ba boo ma woowee ma def vidéo ñëpp di la gis ñu face to face ma may la cinq minutes nga may ma une minute cinq minutes une minute cinq minutes une minute naa ne fexeel ba bul andaale bul ci koy murit ndax dinaa la indil benn vidéo bu ma pare asalaamaaleykum salaamaaleykum

Mm-hmm. allo. ñu ngi lay dégg yaay booy. waaw kay mani sénégalais yi sénégalais yi sénégalais yi laay waxal xolu ñëpp jiix na man damay laaj ana gor ñi ana gor ñi gis nga màggalu Tuubaa googu màggalu Tuubaa googu maa ngi xool di seetaan sénégalais yi surtout jeunesse bi nga xam ne dama fas yéene tas seen yaakaar ndax dinañu dem ci màggal googu wala màggal goo xam ne nekkewul lu dul caaxaan. gis nga man mii di wax a yow xam naa teen bu baax a baax a baax a baax a baax ay greffage yu nit seen doom yi gis nga soxna Bally Mbacke loolu pour greffage nekk greffage la yaa ngi ak yeneen ak yeneen ak yeneen sénégalais yi dama leen di laaj Ousmane Sonko ko mu leen lebal kañ ngeen ko koy fay kañ ngeen ko koy fay kañ ngeen ko koy fay. jéem leen a lijjanti ngeen génnee doomu jaamu ci ci loxo yi mu nekk ñu compalote ko Sénégalais yi compalote ko ànd ak ñu compaloo doomu jaamu ji ndax lan Casamance la depuis lii ndax xam nañ ni bu accident ñëwee ci coupe Touba bi ñoom ci seen bopp dootu neex li lii la xam ñu compalote ko man bi ma gisee Touba ñooy dagg. di dagg dëgg jaray jàmbur yi ñi nga xam ne bracelet la ñu takk ñu di ko dagg di teppi ay ay di di di ay man doo sax comprendre doo sax comprendre waaye bu nu yaakaaree ne bu nu rayee ko Sonko Sénégalais dina am jàmm nax nañ seen bopp nax nañ seen bopp wallahi dóor nañ seen loxo ci ëkk bu nu yaakaaree ñu éliminé ko mooy tax ñu nekk ci seen jàmm billahi nax nañ seen bopp ndax bu nu naree tas yaakaaru ngoon wallahi kenn du ko seetaan kenn du ko seetaan bu yaboo Sénégalais kenn ku ci nekk mu nekk ci sa bopp bi ko ci sa xol bi yaay yi papa yi dugg leen ngeen jéem a soobee doomu ñëw boo koy dikkal ba Sénégal fa koy fekk mu samp pataatam réew moo xam ne jaamu mu dara lu dul xaalis ak jigéen noonu la ñuy jaamu réewum doomeeraam la réewum doomu xaj mooy Sénégal réewum doomeeraam maa ngi jéglu ci saaga yi yal na leen suñu àq dal Ousmane Sonko mii ku ko bëgg a éliminer yàlla na yàlla éliminer ci barke laa ilaaha illallah te bis bu ko éliminer yàlla na yàlla wàccee musiba ci Sénégal boo xam ne dina maasali ñëpp du ma bàyyi kenn lii laay ñaan. jërëjëf ah, attention attention am na lu fi xew nag du maa ko wax am na lu fi xew du maa ko wax am na lu fi xew du maa ko wax xaaral ma teg ko sax man. ku ma yóbbu kër yaa ma di tax laay bañ du ma ci waxante nag ci xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis ci benn tarixa événement bi ma doon défendre sëñ Abdou Aziz Junior moo ma ko ñu ñëw mu ñu Moustapha moo ko wax ni toog nag Abdou mu ni ko gën a neex ànd ak tijaan yi ndax murit yi problème bu ñu mën a am boo leen joxe xaalis rek affaire bi noonu ko waxuma ko nag ku ma duulal laay bañ nag waxuma ko waxuma ko liñ bi ubbeekuwaat na waxuma ko aca ku ñeme ñëw ku ma saaga nag na nga taxaw mayna la 5 minutes man 1 minute lay jël mayat la 5 minutes jëlat 1 minute mayat la 5 minutes jëlat 1 minute waye na nga am gor rek ne man mourid la wala tidiane la wala layel la <laughs> billahi na yepp ce kilifa yi lo xamne na nga nangou ne yow ya ko yow yow la ñew leen ñew leen ñew leen ñew leen 10 minutes de live mu jeex 10 minutes de ubi liñ acca wax nak la ci bañ bañ leen jog jóg ji rek jog len xex jog len lak internet bi jog len lak courant bi jog len nangam jog len nangam ngeen nek ci tefes di taxawal 100 ans de lorange mu ngi ñew seen kaw Ousmane Badji bi ndaysan gore rek gore rek allo Assalamualaikum. عليكم وعليكم السلام allo salaamaaleykum. waaleykum salaam jamono bi ñuy wax. waaw sëriñ Gigi noo kan eh, kan eh, eh, def mbaa yaa ngi ci jàmm baax a baax. jàmm kañ aw ma ko. wallaay ñun ñëpp kenn amul jàmm xanaa def li def rafet na baax ñun buñ amoon téeméer yu mel ni Guigui kon wax wala waxuma sax Macky Sall de mais Père Noël ci wàllu boppam la ñuy njëkk a parce que gis nga gis nga feebar feebar boo koy boo koy faj da ngay dem ba ci ren ba gis nga Sénégal dañu am benn problème te ñoom yëguñu ñooñu moom façon problème lañu am mag yi moom bul taxal sa bopp yàllaa ngi ñëw éliminer mawti moom ak mën a éliminer bés yi bu matee rek bul taxal sa bopp <laughs> dag leen di non waaye xam nga xam nga problème xam nga programme yàlla ak programme doomu aadama du benn loolu mooy problème bi. bàyyil bu yàlla bi rek nañ jël bu yàlla bi rek. mais bu yàlla bi ñun ay jaam lañ dëgg la ñun ay jaam lañ wax dëgg yàlla gëm nañ yàlla bu baax a mais ñun fu mu toll nii dañoo toll ci urgence parce que malade boo xam dafa nekk ci urgence nga war ko nga war ko may deret boo ko may deret day dee nga naan xaaral xam nga loolu tamit day doon leneen. xaaral lan la ñuy xaar sénégalais ñooy ay doomu xaram yoo xam ne neexu ñoo jàppale gisal maa ngi seetaan ci net bi ñu naan affaire yi màggal di ay màggal ak yu kenn xamul yéen a ngi dee fajiwu lekku leen naanu leen yéen sëriñ si ñu ngi leen yi ñoo yor villa yi ñoo yor passeport diplomatique yi ñoo yor terrain sénégalais ñoo yor lépp lu baax yow amoo saram ndeyam ñu topp benn sëriñ sëriñ lan moo tax lan moo lan moo jàpp sénégalais ba ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu yoon yàlla mamal gëmuñu liggéey xoolal didiif nga nekk foofu France foofu xaw ma France nga nekk xaw ma Espagne xaw ma ñooñu gëmuñ sa yàlla yow nga nekk taalibe nga ne sa sëriñ nga yaakaar àdduna ak àllaaxira yow sa sëriñ a ngi ne la moom amul benn problème. amul kanaal yi dañ ko fa indoon ngir saafara mënuñu tëjee saafara du ñu yóbbu jàngoro nañ ñu sakkal kanaal yi pour kanaal bañ fi amati ñaari tonnes ah yow nga toog noonu nga ne yow si sëriñ nga yaakaar si sëriñ ngay xaar ndigal tey taalibe yi bu fekkoon tey ñoom lu ñuy wax dëgg la ci ñoom tey dañoo waroon dëkk attaqué sa man mat Sall bi ñuy attaqué sax man sama wala bu daf maa naqari parce que feebar bi yëpp du Macky Sall Macky Sall lu mu bon bon bon bon moo gën sëriñ si du benn parce que Macky Sall au moins boo demee Sénégal di nga ne ah tali bi moo ko fi defar moo jël xaalis Sénégal defar tali bi wala mo fi defar stade bi wala mo fi mo fi bale yoon bi mais sëriñ ci seen wala bopp dañoo añana añan añan bo xam ne maanaam si dinañ jël sa ben 200 millions wala ben 300 cent millions ubbi ci ben ubbi ci ubbi ci ben société wala ben compagnie taalibe mun a am fi ñu jafandu ñu baña dugg ci géej gi di dee. xoolal ma loolu di est-ce que loolu neex na ci xol. Macky Sall tey lépp lu muy def tey Père Noël moo ko ci jàppale Père Noël Mahi Niass ñoom ñëpp bu ma doon suma sago ñëpp jógoon ci kër kilifa diine lañ war waroon waroon jóg ñoom dem ci kilifa diine yi parce que ñoom ñooy suñu problème ñoom ñooy suñu problème kenn du suñu problème digi yow yal na la yàlla fay yow yow yow yow yow taxawaayu saxaaba yi nga taxaw tey parce que yow foofu nga nekk noonu bu la neexoon nga bu neexoon nga woon wane ginnaaw comme def doomu xaram yi nga xamee ne ñoom ñoom ñoom seen yoon newu ci Sénégal bu yàqoo Sénégal bu baaxee seen yoon newu ci yow wa defuloo loolu da nga jaay sa askan jaay sa famille jaay sa jaay tu es en danger ci lépp mun nañ la def lu nekk ci àdduna waaye loolu Sénégal moo la ko jaral jërëjëf yow yal na la yàlla aar Guigui yal na ñu mel ni yow nekk biir Sénégal yal nañu am junne yi mel ni Guigui. billaahi amin amin jaajëf. Guigui yow boo fi newuroon comme mu ñaaw parce que Guigui yow da nga yow da gis nga ma tax gis nga xeex bi Ousmane Sonko toog Sénégal loolu dafa bokk tey ci jihaad bu gën a mag tey ci àdduna. jaajëf yow kër sëriñ si kër sëriñ si ñëwaat xoolal li def ci waa woon. ñaata milliards lay joxe Aziz Ndiaye doomu xaram boobu Aziz njaay nga xam ne yow kenn ñëpp ko xam ci affaire yi affaire yi tàppale affaire yi càcc affaire yi triant ngay jël ay un milliard di ko tabax jàkka loo ma tax gis nga bi nga ne nañ dem jàkka yi puub gis nga puub sa doyoo xam nga puub da koy raas mais dañ toj jàkka ndey Sénégal yëpp parce que jàkka yi yàlla taxut ñi bit yalla taxut ñu ñu tabax ko ay seytaane ay parparlo commerce commerce moo tax ñu ñuy tabax jàkka yi yow da nga ne nañ nga puub mais man dama ne nañ rajaxe jàkka yi nañ ko rajaxee te imam bu fa taxaw na la ilaha la ñu dagg sa ñu dégg sa ndey lii bi kañ lii bi kañ Sénégal yàqu na Sénégal nit ñi lekkatuñ naanatuñ yow Sénégal fépp foo munte dafa metti gis na ñu ñu nekk ñun ñu nekk ci biti nii ñun nekk yor foofu njaboot ñu ngi diñ dañu mënoo am une semaine boo xamee ne sa yaay wala sa mag wala sa rakk woowu la naan amut dañ lay woo bi di la woo ndax suukar si jeex na diwlin bi ñeex na ay yoo xam ne subhaanallahu alazim ñun fuñ jëm fuñ jëm gigi jërëjëf jërëjëf grand lii bi kañ gigi jaajëf jaajëf jaajëf sama xol dafa jeex sama xol dafa jeex jaajëf jaajëf jaajëf muñ rek muñ rek ak dëgër taxaw rek xeex bi jërëjëf jërëjëf waay sigi yal na la yàlla aar yal na la yàlla aar yal na la yàlla aar maa ngi lay ñaanal bu baax baax amin amin ku toog jàmm nga Ousmane a ngi ci kasa bi ku toog rek jàmm nga xaaral ma jëli wol sa geen bala muy indi problème on sa geen allo allo allo général waa ñu ngi ziar ziar nañ la yaa ngi ci jàmm jàmm kañ aw ma ko andil ma ci <laughs> yow la ñuy def. waaw ñëpp loolu la ñuy wër fi mu toll. jaajëf yow la ñuy déglu bul déglu live bi waxal rek. waaw xam nga affaire yi waaw affaire yi faaw ñu jël ko ñu jël suñu responsabilité ñun sénégalais. Mhm. xam nga surtout surtout surtout Serigne si. sëriñ si ñoo bëgg ñoo bëgg a yàq dëkk bi te tekkiwuñ saram ndayam ci dëkk bi dañ leen koy wax pour muy leer tekkiwuñ saram ndayam yàq dëkk bi dong lañ fi nekk ay Muntaxa Mbàkke ak Baye Si Mansour ak Mahi Niass ñoom ñëpp a yam saram ndayam tekkiwuñ ko dëkk ci dëkk bi loolu lañ bëgg sénégalais yi xam ko fii ku fi jaamu ji kenn na nga dem jaamu yàlla boo ci duggee nga respecté say waajur nga toppatoo leen ñu ñàpp ndaan bàyyi sëriñ si nga xam ne bu dëkk bi yàqoo tey ñooma bu fi guerre naree am tey ñooma barki yàlla wallahi ñoom ñëpp la ñuy téegal seen nday pare guñ ci ñoom da pare ba Sénégal dina yàqu da waaye gis na bu Sénégal yàqoo ci ñoom la ñuy jëm attaqué téegal seen nday ndax lépp lu fi am ñoom ñoo yore responsabilité bi ñoom ak Macky Sall te fu ñu dina jàpp leen mun taxaa Mbàkke keneen moo ci gën a téegal ndeyam dañ koy wax pour ñëpp di ci dégg mënul ba Sénégal di ñàpp ndeyam di dàq depuis yow trois ans ñu ba bëri ki muy ñëw di ñàpp ndeyam naan yëguñu ko te bés bu nekk mu génnee bàyyi bàyyi ñii nii la dem leen fi kenn manifester xanaa moom dafa yaakaar sénégalais yi dof lañu wala moom dafa yaakaar ni mu dof lañu wala sénégalais yi dof xaalis tiital lu ñu def barke rasulaay ñàpp xaalis mënut a ñàpp ndeyam tiital ñu moom bu fekkee xaalis dëkkaan ñàpp ndeyam tiital nañu ko wax moom ak ñim àndal gàngu xalifa général yooyu yooyu la war a takk ndeyam mu jeex Sénégal gënuñu ñoo jàng ba jàng jotee dañoo dem jàngee xam li yàlla wax xamee fii benn sëriñ gënuñu fee jàng nit lañ comme ñun nit lañ comme ñun dañuy day di saw dañuy day di saw waaw bu ñu kenn ñàppulul ndeyam nag di ñu yàqal suñu réew Sénégal suñu avenir doom ñoo fa nekk suñu avenir ma rakk ñoo fa nekk te kenn duñu ko yàqal benn sëriñ ñàkkul ndeyam duñu ko yàqal nag te loolu ci taxaw ba ma sëg ñu ngi xaar rek débordement am ñu boole leen tax seen nday ñoom ñëpp kenn moomuñu ne ñëpp jël seen i responsabilité réew mi suñu réew la Sénégal yëpp ñoo ko bokk ñoo ci yem ñun ñëpp ay citoyen lañ kenn mënu fee weesu nday lu dul citoyen ñu ñàkk ndeyam dem leen seen ginnaaw di tuñ tuñi rek ñoo ñu tooñ waaw ndax tubaab boo ñëwee fii ci moom ni ko maa la gën day tegal sa ndey noonu nag la Sénégal gënu Sénégal war a jiw pour jóg nii la sa maam a gën sama maam nga tegal ndeyam wax ji jeex fii benn sëriñ gënu fi kenn ngay tijaan ngay murit yéen ñëpp fi yam saram ndeyam tekkiwu leen ko ci réew mi nit ñi ni ngeen amee sañ-sañ noonu te ñuy sant Diop ñu sant Njaay ñu sant Kuré ñëpp noonu leen ci amee sañ-sañ kenn gënu ci kàtt ndeyam ëppale ci kenn nañu ñàpp ndeyam may jàmm nag ak seenu gàng wasalaam ابنك ابنك gars ma dama nekkoon téléphone lu xew téléphone laa nekkoon téléphone laa nekkoon waaw. salaamaaleykum oh, on once again. ñu ngi lay ziar once again. waaw jaa ngeen jëf. dama koy articuler. waaw noonu la ni ma ko waxee noonu la. naka mu ma ko waxee noon la. mu ne si. once again. waaw yaa ngi ñëw de. once again. waaw yaa ngi ñëw moom. argumenté laay def de. waaw la de. angale laay jàng cours la. once again la ñu ngi lay déglu. Ah. waaw naka mu. jaaxle rek Ousmane ci kaso bi. ah waaw léegi Sénégalais yi toog seetaan ko jay ko ba mu dugg ah, kaso. ah terminé

xanaa seen gars yi ci loolu lañ dëkk eh? bu ngeen jaaxlee rek ne yàmbaa baaxul sàngara baaxul waaw ñi koy tox kañ dégg ngeen ko xam ngeen wax leen ci wax ji bala bala may dee bala may waa ji ne yàlla amul njëriñ waa ji ne waa ji maanaam li ma dégg ci waxam mu ne bu ñu xamoon lan la ñuy daj ci jàmm ci réew mi pour jàmm am ma ne que ci moo mën a duul réew mi xanaa xamoon ñàkk jàmm bi mu am ñoom ñoo tax ñoom xamuñu loolu réew mi li tax sénégalais yi nekkuñu amu amuñu jàmm à cause ndax sëriñ si Macky Sall utiliser leen def leen milliardaire ah loolu tax réew mi amul jàmm yow booy bas rek porte parole bi dong milliardaire la kon sëriñ bi sëriñ bi nan la war a doon sëriñ bi lu mu war doon. ah est-ce que yor ñu réew mi ñàkk jàmm ji mu am. ñàkk jàmm ji mu am ñoom ñoo ko waral. est-ce que yor ñu entreprise loolu dama bëgg ñu xam. est-ce que yoruñu entreprise te réew mi nag ah. est-ce entreprise. réew mi ndekete mosuma gis ku gën a téegal ndeyam fii ci réew mi ku dul woowee boppam patriote gis nga waa APR saagaatuñu de patriote doomi xaraam yi rek a fi nekk di saaga ndeyi nit ñi léegi. loolu moom dama bëgg ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax waaw ndax waa Macky sàll yi ñoom gëmuñu sax sëriñ coow li coow li dañ koy utiliser pour jàll mais gëmuñu sëriñ mais ndekete kuy téegal sa ndey ci réew mi. patriote lay doon moo tax réew mi jaxasoo dégg nga li tax Prodac ba léegi doomi xaraam yi biñ ñu infiltré ndekete dañu leen mi ngi noonu ndax duñu xeex duñu xeex loolu mooy mbir mi gars yi duñu xeex kuy téegal sa ndey ba yegg si si yenn patriote yi waxuma ñëpp nag mais kuy téegal sa ndey da ngay dellu danga delluwaat ginnaaw lu leer laa ñu ñuy expliqué bàyyi leen ci xal bu baax a baax dégg nga ñoo ñëw filtré ko ne ko boo ko laalee dinañ la dóor dégg waa ji ne leen avertir leen man ba mu koy wax sa sama xel maa ngi naan saa yi wóorul de làppato yi dañoo bëri de dégg nga gis nga fi mu mujjee nii dégg nga ñëpp a ngi dem di nàmp seen weenu góosu jabar yi we weenu góos yi nag la ñuy jël weenu góos yi quoi di nàmp doomee xaj ngeen doon tey le doomu jàmbur bi dugal ko ci kaso bi ba noppi dégg nga di défendre seen doomee xaramu sëriñ si man loolu moo ma metti quoi li ma metti loolu la quoi dégg maanaam tey la waa ji ba noppi dem di défendre sëriñ te yow défendre sëriñ bi kenn dooru ko mbéjte kenn waxu ko dara sa sa soxla dong nga ngay wax ñoom fàtte nañu pro xam nga loolu wur révolution boobu wur ñun daal dañu bàyyi yaakaar na Niger moo ñuy génn ci bi am naa ci yaakaar de Niger bu ngeen leen ndeyu militaire yi ba noppi waaye yabalal ñu benn pale waaye ngir yàlla ak yonente bi dama ñu ñaan rek. da nga naan kay benn Sénégal. foofu la ñuy mujjee ñii ma gis nii ah. moom nañ yebal di dem guerre sa réew. waa di dem guerre sa réew contre di la ñaanal. naan la yàlla bu sama sama militaire dellu si kon xam nga ne am na lu xew de. Hmm. am na lu xew de. nañ xaaral de baatin la ñuy wax man daal Niger ak Poutine. baatin la ñuy wax de. Ah? baatin la wax de. seetaan leen rek waaw la ñuy wax. seetaan leen rek. yow di rey ak nit ñi. Poutine ñi naan réew mi li ciy teg ci pour réew mi am jàmm yéen a mën a tuub. Poutine dama ragal ne moom ay tàjji prisonniers yi Poutine. ay drone la yor Antoine def Serigne Mountakha milliardaire. def Mahi Niass milliardaire. def Boy Bass milliardaire defaat keneen milliardaire ngeen bëgg ñoo wax naan bu li ñuy teg ci jàmm ci réew mi yéen a mën a duul duulkatu xaramata njaay bokkaalekatu doome xaram yi ngeen doon ñii ay duulkat lañu waay waaye ñii seen dayi nday waay yaa ngi jëf waay man maa ngi leen di bàyyi. waaw kay ku ma mën naa la évacuer. Poutine moom xam naa ne maa koy jox cible yi. <laughs> maa koy jox cible tarixa yi rek laa koy njëkk a yónni tarixa yi rek tarixa bu ne ku ci am baatin préparé dégg naa nag paa yi moom ay jamono temps yi déggoo la itilaire jote tay dëggal ak itilaire jote ba itilaire commencé eh, tënk dégg naa jàkk yi dañ daan ne allemand allemand allemand allah de lañ jaawale ak allah moom lañ jaawale ak allemand ndax lan bomb yaa ngi ñëw nee nañ dañ koy tënk dañ koy dékku <laughs> dékku la ñuy def allemand allemand allemand allemand allemand allemand ñii daaneel ñuy yëkkati Sénégal la xew na ngeen ma duulal nag na ngeen ma duulal. salaamaaleykum. tàppet yi ñu doon ñu tàppet. toog di fattasu rek ak a wàccee kaamil yi ka yéegal ñoom daal ci ëllu yàlla bi rek lañ toog duñ ko gis mu allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam ça va. ça ne va pas de. Euh, en fait <coughs> toujours même message bi la rek Sénégalais yi ni ñuy jóg xeex. parce que ça fait, ça fait plusieurs jours. Le président Ousmane Sonko, il est en prison et on dirait que euh, on dirait que les Sénégalais, ils ont arrêté en fait parce que là, on voit plus personne sur le terrain et du coup, ils sont encore dans leur futilité de magal je ne sais pas, ou je ne sais pas, Gamou, je ne sais pas quoi là. Ils sont dans ça. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, eux, ils ont quoi à la place du cerveau Ils n'arrivent pas à tirer des leçons jusqu'à présent que ces khalifs là, ce ne sont pas des khalifs, ce sont des gens de 7 ans qu'ils pensent à leur avenir, qu'ils, ben, ben, en tout cas, le, présent, euh, moi, comme d'autres, comme tant d'autres Sénégalais, notre préoccupation principale, c'est que Ousmane Sonko sort de prison. Après, si Ousmane Sonko sort de prison, le reste, c'est leur problème parce qu'ils vont continuer sur eux. Ils n'ont qu'à rien à faire dans leur vie. Ils vont continuer dans leur futilité. Le Sénégal, comme toujours, même là, là, là, actuellement, nous, on a honte en tant que Sénégalais quand on parle, tous les panels, quand on parle des Sénégalais, on parle de notre histoire, de notre histoire, le passé qui nous suit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les mêmes traîtres, ils sont là. Au lieu de réfléchir sur ça, la jeunesse consciente, de prendre le relève, d'entrer dans, dans, dans, dans l'histoire juste pour une fois, mais non, on est encore dans... Ils ont dit qu'ils sont maraboutés. le moment où toi, tu sais que tu es marabouté, pourquoi tu te lèves pas pour te, te, pour te pour te relever, en fait. Pourquoi ils ne se relèvent pas Ils sont maraboutés, ils soi-disant marqués. Ce n'est pas du maraboutage. Tous les Sénégalais sont feignants. Ils ne veulent pas se battre. Ils attendent que les autres viennent libérer le Sénégal pour eux. À chaque fois, ils attendent la diaspora en direct à la diaspora, vous qui, euh, euh, qui, êtes euh, dans la diaspora, ils peuvent venir sur le Sénégal. Ils croient que les gens de la diaspora ils vont descendre pour que Macky, les mette en prison. Eux qui sont dans le terrain, pourquoi ne pas se battre la diaspora en train de faire, ils sont en train là, en train de faire le maximum pour faire passer le message dans le niveau international. Mais eux, ils ne voient pas ça. C'est dommage, quoi. Un pays comme ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour le Sénégal et c'est vraiment dommage pour le président Ousmane Sonko parce que là, lui qui a tout sacrifié pour un peuple comme ça, un peuple aussi lâche comme les Sénégalais, non, mais ça n'existe pas. <laughs> Ça n'existe pas. T'inquiète. gars yi Branco ngay wax Juan Branco ma ngay wax maa ngay coupé Juan a ngay wax fii laa yem ak yéen sénégalais yi nag mi ngi ni ndeysaan Pastef bokk na ci parti politique yi gën a structuré wu ci réew mi buñ ne structuration mooy département commune boo dem tey ci senegal am na cellule Pastef boo xam ne benn bu ne ay centaine wala ay milliers de membres ñoo ci nekk boolewuñ ci ñi nga xam ni amuñu carte membre Pastef duñu militant actif mais Ousmane Sonko la ñu bëgg dañuy dem mitin di dem manifestation ak bépp xeetu rassemblement di dugal seen xaalis ci parti bi. léegi comme que Macky nee na tas nañ parti Pastef maanaam tey benn kuréelu parti bi amul droit wu wu woote waxtaan xam leen ni loolu du handicap déedéet avantage bu rëy rëy la. ndax tay kenn mënatul dugg ci koñ naan diw ak diw ñoo responsable pastef tas ngeen parti bi léegi assumé leen dootu leen xam fu mbiri di bàyyikoo ak kan ngeen top topp yow mi ñuy setaan jàppal ni bés ni ki yaay capitaine si biir koñ ci quartier bi nga dëkk xam nga beneen ba ñeneen ñoo xam ne miinante ngeen le même combat muy libéré Ousmane Sonko doxantul ba daje cibir ci biir néeg yi teg seen attaaya pour waxtaanaale bu leen créé groupe whatsapp bu leen wootante téléphone bu leen envoyé wante sms di wax ci dara lu jëm ci wàllu manifestation lépp lu ngeen di def ci combat bi bët ak bët lay doon ku ne teew xam ni lii mooy stratégie yi xam yan heure ak yan moment ngeen di dajaloo ci benn bërëb pour def li ngeen di def message bi yegg ci ku nekk information yi de bouche à oreille lay doon yéeg jottali sa morom fatte len téléphone yi dëddu len groupe whatsapp yi appel yek sms yi na ko donc meilleure stratégie d'organisation ci goudi yi ñu tollu moy lu ñuy def mu doon waxtanu biir nekk na patriote yi nekk ci quartier yépp mobilisé wu bolé seni doole ci tek ak tay bañ ko bolé wax ci bay pour tëral seeni plan beneen stratégie bi mooy indiwaat le concept ville morte actuellement boo demee Ziguinchor ñu ngi koy réussir bu baax a baax te noonu la war a mel ci bépp région ci Sénégal rawatina Dakar bi nga xam ne mooy la capitale. lu tax exemple Ziguinchor mooy jeunes ya fa nekk xaaruñ benn leader wala doomi aadama bu ñëw régler leen seeni problème ma jox leen ci benn stratégie ñi nga xam ne dañoo bañ a xeex. non si yàpp tax leen jóg ñuy voyager ci réew mi affaire bi comme dañ leen ëpp doole defar leen ci menuisier métallique yi lu mën a bënn pën a oto guddi nga jël sa fas wala nga jël sa mbaam dem ba ci tali bi foo xam ne oto yi dañuy xël nga wasaare ko ci tali bi oto bu xël rek Dakar ndeyam ci suuf dee yi bari parce que gor lañ tëj ci réew mi kooku ci stratégie la bokk pénaliser leen lépp loo xam ne bu oto yi rek voyage bi day taxaw néew yu dàqante parce que dafa am ñoo xam ne ci koñ ñi la ñuy nekk jaay seen avenir doom yi pour di leen yoore ñooñu ñooy pare xaalis bañ ciy am ñoom ñooy voyagé rayal rek bu ñu mënta xam kan mooy doomaraam rayal rek bu tuuti ni desee rek ñu régler problème bi loolu stratégie la Macky moom na deret yi bari rek ba ñëpp xam ko na mbokk yëpp jooy ñun yëpp jooy jël affaire rek sànni ci tali bi lépp lu mën a bënd pën oto rek fi auto yi vitesse ci all bi sanni foofu xeex day saf mondial buñ la xañee jàmm xañal jàmm ñëpp point stratégie la na leer maa ko wax ñëw leen jël si ma bu yeboo ngeen ne dama bon yéen a ma gën a bon yéen ñi seetaan ñu tëj gor ku woor ba ngoon jot war a julli ji ñu xañ ko julli ba pare jël ko tooñ ko tëj ko kaso ngeen doon jënd ay tichetam di jënd bracelet di jënd léppam bu leen yeboo ngeen ne dama bon waaye jàpp leen ne yéen a ngi darngu ci biir bon di ma xëcc ci bon mako wax yàggale xalaat TV xel newun di jooytu pour kenn dimbali len duñu jël seeni responsabilité tëral seeni stratégie diko doxal comme ni mu waré muy porter ses fruits ba la même stratégie buñ ko appliquer Dakar ñaari fan situation bi fay décanter wu Ousmane Sonko fay génn prison te Macky Sall dinañu abal par force ndax économie réew mi moo supporter concept ville morte bobé encore une fois lutax concept ville morte am solo moy ñepp ko yëgandoo moy ki tok naan sama yoon newu ci ak ki def limi def ba nopi yaakar ni dafay koy di dund tranquillement ci dëkk bi. lolu nak ni muy démé moy bu génie organisé wu ci quartier yi ba nopi nañu yeewu fajar ciblé comme niñ ko défé won lepp luy way moo xam autoroute nationale péage VDN yi les plus voies de transport Biri, yi du ñu koy raay raayal objectif bi paralyser complètement dëkk bi yépp dara du dem dara du dik. tant que Macky Sall mi ngi woy di jéem toroxal ay gor te bi yoon bu tàmbalee doom ab tànk ñu suñu par exemple capitale bi bu département yi di risque Pikine Kër Massar Géejawaay jën biir Dakar respecté consigne yi songu route nationale yi autour à péage te rek VDN yi ñëpp dañu xamné ne réew mi amnul fi xew. li moy nek effet déclencheur bi tax ñi togon sax jogat li moy tax ñi sentirul won sax concerné ci jaay doole gi fi am xamné jammi Ousmane Sonko moy jammi Sénégal. bu ku ne maîtriser sa quartier sa commune ba sa département ba loolu mooy nekk. gis naa Thierno Bocoum muy campagne naan comme Ousmane Sonko tëj nañ ko kaso wut leen deuxième Thierno Bocoum yoon yi muy jaar képp ku ko xam ku ma mën a exploser Thierno Bocoum tegal ma ko miin mu katt ndeyam comme ni mu dugalee doomam ci foos lool laaj ma jox la réew mi ku fi campagne rek ma xam ne ay doomaraam ngeen ku campagne rek ma xam ne ay doomaraam ngeen tant que Ousmane a nga ci kaso bi. ki doon def ne ma ko tour mbedd yi fees ku fi campagne rek ma xam ne doomaraam ngeen diaspora bi moom ku fi ñëw campagne dinañ tas sa po bu maam fii ku fi ñëw campagne ñu tas sa cottu ndey yéen politiciens yépp nag surtout yeewi askan xalifa sal Khalifa li Barthélémy Dias ñu ngi leen di xaar ci bi diaspora bi moom fii Europe lañ ne iwil laay katt seen ndey wala ma katt seen ndey poson poson laay xëpp seen ndey fii tëdd fi kaso ñu ti di ma climatiseur defal ma lépp dinaa katt ndey benn homme politique lu leer la leen wax <coughs> ñew leen fi ngeen ñuy fekk ñew leen campagne wut leen ay nervi de fii Europe la de fii fii Europe la fii nga tamu rek police ñëw fii di ngeen xam ne policiers yii ni rawul ak yi ngeen jënd fële mbaam yi ngeen yor fële ni rawul ak yii fii ku fi ñëw campagne si dinañ toj sa cott nday ba toog sa kaw fii nervi amu fi da ngeen di yor ay nervi ñu armé wu taxaw comme ñoom police ñëw atté taxaw ñu kat seen nday bu baax doxal seen nday nit ñag yi doon def seen homme politique noonu lañ leen def fii ku fi ñëw campagne rek dinañ ko campagne sa biir data nday yenn yenn opposition bi yëpp laa wax na ku fi ñëw campagne ñu campagne sa data nday boo jëlee billet ànd ak say nit ñëw sa yaay dee xamal ne yaa ngi ci kaw bàmmeelam toog ci data bi di campagne xalifa Sall ak keneen laa yemale ku fi campagne si ñu toj sa cot nday dëkk boo dem bu ñu xam ne yaa ngi dem dinañ yebal ay nit ñu daqaar sa nday yéen ñëpp nag diaspora bi dañ mer de comme léegi bu ñu ñëwee ci réew mi ñu jàpp fii la bu ngeen fi duggee ñu toj seen cot nday bu état bi xowan xawaan ko kat sen lay parce que woné na lu leer tek na ci kaw table bi ke ni amulen loi na leer de kat len sen day ngeen tok Afrique campagne mais fi fi jami ne foofu ngeen di campagne fi ku fi ñëw campagne rek dañu campagne sa ko jobbu nday lu leer lañ leen wax khalifa nak gis na la ngay lay lay ñu naan la ndax na nga war Ousmane ngay am te yeen ni ngeen katé sen day nak jeeg rek ngeen di tek tagaji tagaji rek comme yeen buñ leen joxé état bi yóbbu ay nit fu ne ngeen tas fa ay nit préparer comme serigne ci jël ay nit rek fu ñuy génn rek roñ sànqalañ ñi tas ci biir dëkk bi fu ñu tourné ñu del défendre mais xaar leen du dajina serigne ci si gaay nga yewu ndank ndank dof ye ci dess mbam yi ñoo ci dess légui nak man ak yeen politique bi ñoo ci dess dina kat sen day ba ngeen en arrière fi lay tok nak kat mom bu leen yabo kuy ñëw bayil sa koy Sénégal yeen khalifa yeen opposition bi doomu xaraam yi saay bu ngeen voyagé kattante ngeen fiy nekk am naa délégation jeeg joo xam ne ku fi ñëw bu la yeboo say koy dénkaane ko Sénégal say tuñ nga scotché ko booy wax génneel tiwo ci micro bi wax ndax boo fi maccee data wala nga màcc lu fi kooy bu la yeboo nga xam ne nguuru ngaana nga yàqu nga jeeg ji moom pare nañu te motivé wu nañu ndax lii ngeen tëj Ousmane Sonko du ngeen ko noose mukk ci kaw suuf fii booy yi nag Sénégal yéen laa waxal fexe leen ba képp ku bëgg a tukki rek yaa ngi xalaat accidenté terroriser leen ñëpp ba keroog Ousmane di génn kaso na ñëpp terroriser wu yéen a ngi terrain bi nag joxe naa xaalis defar leen affaire na gaaw gëriyaat frontière rek Sénégal yëpp frontière la lii kenn du dem kenn dikk na affaire yi tas tali lu mu gën a sori gën a baax amuñu policiers yu mën a dox ci àll yi kat yi nag xam naa capable nañ ko comme yéen ci biir ville ngeen di dem gëriyaat kër buntu jàmbur ba day fa. xamna naa mom di ngeen fa meuna dem parce que fofu mën ngeen fa day ta kenn du len gis Why? amna na yo xamne xam ne mënu leen faa toog na leer fu génn di nga kat sa nday da ngeen bëgg noosi rek accident sur accident rek pexe ñi def ba auto kat ndayam comme da ngeen di njëkkante kaar yi moom njëkkante xaalis la ñu def ñoom bambak bàmbaak rakam wuñ alaaji malik ak rakam magal ak gam. bu sobe yalla lolu ngeen fi tek di fi ray rek bu sobe yalla dinañ fexé ba di ngeen tëdd ci deret ju bari comme deret ngeen ci doon wut rek di ngeen ci am lu bari di ngeen ci am lu bari parce que xam nañ ni ñu def ak yeen accident yi bari rek kenn du génn tant que taxawu leen ci seen diine ji yéen a jiite diine ku woor moo tëdd kaso bu dee diine ngeen yor kala fee feete sa bésu di nga lijeenti ki woor tëdd kaso ci diine la yéen a doon woote diine nee leen bal bi dina ñëw ku ne sa wàll ngi ñëw ku ne sa wàll ngi ñëw góor jigéen ñëw na daanu leen ko réew mi am droit daanu leen ko xale yi mën a dund ci réew mi daanu leen ko yéen daal daanu leen dara toog rek boofu wàccee kaamil rek ak a yëkkati yàkkamti néew yi bari ba ngeen wàccee encaissé rek rek laay laay rek laay laay rek ñaana ñaan yàlla ba faf li mu leen joxoon mu nangu ko seen morom ñëw ñuus leen nangu ko tubaab bàyyi fi ñu ñuul ku ñu di ko roñ di yóbbu ci waawoon phosphate mbay si maasur mënu faa fajoo raay bi ci biir ci waawoon lay jaar hôpital bu baax mënu ko am tuddé hôpital de alaaji malik xam nga né alaaji malik bu fa nekkoon hôpital yi baax ci tiaxan ngeen ci tiaxan ngeen hôpital fukki ak juroom ñaar defa nga bëgg faju faju c'est ça ok ciao bye na ngeen ma dagg duulal ma